an laa ilaaha illallah bu seede ko amul benn buubu du yàlla bu ànd ak bu ànd ak muhammadan naka sunu sang muhammad nabi booy sunu yonent ñaareel bi mooy iqaami salaati taxawal julli juróom ñeenteel bi mooy saw bi ramadaana wóoru weeru koor juróomeel bi mooy xaj ñeenteel bi mooy ita izakati sawi ramadaana wóor weeru koor juróomeel bi mooy xajjul bayti mooy aju màkka ñooñu ak ñooñu. jullit bu yeewoo mu buy génn si buy génn. jullit buy génn si këram wala hawla wala quwwata illaa billaahi macha allah bu dellu see nag lu muy wax bu dellu see mu wax bismillaahi xarañna wa bismillaahi warañna wa ala rabbina tawakkalna macha allah macha allah Abdou kontaan nañu léegi léegi léegi nu jox maam Fallou mu waxal nu euh, jullit buy tëdd lan lay wax buy tëdd lan lay wax julli baram yi tëdd lay wax amuutu wa ahya bu yeewoo bu yeewoo mu wax alhamdulilah waxal alhamdulilah hmm. faalu macha allah ba mu eggaleel la ka Aïcha Aïcha eggaleel ka ka jullit bu yeewoo lu muy wax ah buñ ko jot duñ dégg Aïcha bu jullit yeewoo lan lay wax bu jullit nelawee ba yeewu alhamdulilah lasi jullit bu yeewoo lay wax alhamdulilah lasi ahyaana mm. ba'dama allah ah. léegi nu ñëw ci Euh, Aïcha kii nu mu tëddeeti waaw soxna May nga waxal nu jullit buy lekk lan lay wax bu commencé di lekk soxna May. jullit bala muy lekk day wax allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nari bismillah. bu lekkee ba pare mu wax alhamdulillahi lazi at'amana wa saana kulli ala kulli kulli muslimin macha allah léegi ndey cuun ndey cuun jëlal nga waxal nu nga waxal nu jullit buy dugg ci duus lan lay wax. jullit bala mi dugg si duus may wax allahumma inni a'udhu bika min al-khabsi wal-khaba'isi. bu génnee nag lu muy wax. bu génnee mu wax ufranaka. macha allah macha allah. léegi xam naa ne bëggoon nañ ko guddal lool waaye dañuy bañ temps bi dem ndax ñoom ñëpp yaa bëggoon nañu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk macha allah ñu wax ah Aïcha Aïcha bëggoon dina wax Aïcha Aïcha kii wal nu nga waxal nu rabbana atina. rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil حسنة وقنا عذاب النار بسم الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka allahumma antal wahhab allah la ilaha illa huwa khayyul khayyum la tadhu sinatun wa la nawla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 léegi léegi nag xale yi gannaaw ba nga xamante ni seen waajur yaa ngi nii ñëw toog léegi ñaanal leen kuy ñaanal sa waajur lan ngay wax ay ca sa ñaari waajur leenay wa rabbil xamhuma kama rabbayani sagira waxal lay tekki yal na yàlla yërmal sama ñaari waajur comme nun ma yërëmee woon ba may nekk xale. macha leen seen bopp tàccu leen seen bopp kontaan nañu ci yéen kontaan nañu kontaan nañu ci yéen léegi léegi mën ngeen dem toog kii ma ma ma Fall noppi loo toog ah nga dama toog dama toog nii wala toog leen nii waa asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen baalu ci weeru koor bi di leen baal ak sama kàddu nag dama koy jëmale rek si ñaar si parent d'élèves yi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi teew teewal fi seen njaboot yi amuñu seen fay yàlla mi am fay yal nañu leen yàlla fayal parce que bu nu ubbi woon école bi nii te benn parent indul fi am kon école bi nu mën a demee nii ñoo leen di sant di leen gënam di leen baalu àq nag ndax xale yi ëpp nañ fi sax lii waaye xam naa jour bi mu tombee la moo tax ñu bëri ñëwunu waaye moo tax sax mu demee nii waaye bëggoon na nu kenn ku si nekk tey si xale yi ku si nekk wax ndax buñ dee jàng ñoom ñoo koy jàngandool waaye heure bi kii bi moo nu ko may daal heure bi waaye ñoo ngi leen jéggalu kenn ku si nekk bu doon sa sunu sogo sa doom dina wax sa kanam waaye jàppale ne rek temps ko waral ñaare bi tamit ma jëmatee sama wax si sama mbokku jàngalekat yi di leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp ñoom tamit di leen wax ni dëgg la euh, jàngale dafa metti metti na fa di yem waaye ki nga xam ne moo jur moo jur doomam romb école yu bare indi ko ba ci école bi yaakaar rek la am si école bi kon nag ma leen di ñaanal yaakaar ngeen am ci école bi yàlla bu ko yàlla tas yàlla na ngeen si am lu kawe seen euh, di leen wax ne leen jàng moom lii kase la xaleel buy jàng da koy da koy bàyyi mu jàng ak sagoom waaye jël xaleel formé ka ba pare ëllëgër si biir du sax eggal njàngam nga jël ko yóbbu ko si beneen njàng loolu di dund neex bu doon sunu sagoo ngeen bàyyi fi xale yi man lu nekk dama koy def référence sama bopp ndax ñun ba ñuy jàng si al azar booba al azar bi nekkul fii ma nga sa sanc ba waaye dañ fa duggee sëyi ba terminal kenn su fa génn dund yóbbu si beneen école ñu bàyyi nu fi ñu nag sunu morom yi doon jàngandool ñëpp a bàyyi maag soxna Xadi ba rek a desoon si école ba ku képp ku nu gis dinu wax yan leen yeen nga si école ba léegi yeen nga si école yàlla dafa def ñu jóge sa école ba am fa bëkki brevet ñu dem Thiès eggale suñu njàng ba nu fa eggee suñu njàng ñu fekk fa soxna ndee liggéey mii ñu bokk fa nekk sa Thiès di fa jàng euh, jàmm gin nga xamal ak mbaax gin nga xamal ba léegi moom mooy nekk si moom si la nu pare nag suñu daan afa suñu bac ñibbi si fii référence boobu ma leen koy jox xaleel buy jàng te nga bëgg am ci moom dam da nga koy bàyyi muy jàng sa école ba waaye bu jàngee nga formé ko ñetti at nga génn ko yóbbu ko si beneen école loolu de bu doon suñu sagoor ñoo ngi leen koy ñaan yeen parents yi ngeen duñu bàyyi suñu xale ñu dund ba am fi seen diplôme génne ko te xam du ngeen nga mës a réccu ñun jàngalkat ñun tamit ñu ñu am lu ñu sasoo xam ne yaakaar dafa foor kenn ku si nekk jox ak xam li nga xam ne moom ngay jàngale man su ma dee si ba gis oto yi gaare ku nekk dindi sa doom sama yaram dafay daw bu ko defee ma ne xale yi bu ko defee daal ñu góorgóorlu ñun tamit ñaaxaar suñu bopp jàppale xale yi te xam ne jàppale xale yi moo jàppale suñu bopp waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Seyda Kumba Kamara yéen ji àgg na yàlla yàlla mottali yaakaar naa li wax ñëpp dégg nañ ko ci parents yi ak ci jàngalekat yëpp surtout nag ci jàngalekat yi surtout ci jàngalekat yi surtout ci jàngalekat yi euh, Abdou Khadr mu ngi waxtaanee ci biir waxtaan al amaana al amaana buñ jàppee ne amaana mooy alal buñ la dénk rek amaana ëpp na lool. nit ku la jox doomam doom ak ni mu foore nga xamante ni yaakaaram ci la ko wekk ginnaaw yàlla pour nga def ci moom xam-xam tàggat ko def ci moom jikko ju rafet kooku waroo ko trahir war nga def sa kéemtalaay kàttan ba ëllëg doo am gàcc kon lu am solo la wax yàlla yàlla fay ko yiw yàlla mottali yéeneem ci xale yi kon xam naa dañuy dugg rek ci conférence ñaareel bi bi nga xamante ni suñu mbokk al oustaz Alioune Badara Cissé moo ñu ko war a defal oustaz egsi na sànq comme ni ñu ko ko waxee woon midi nañ ko waxoon midi fi la ko fekk macha allah loolu lépp di ay royukaay di ay exemple kon xam naa dañ koy bàyyi mu yëg ci kaw ànd ak al oustaz euh, Mouhamad Diop Ahmed Diop su ko defee ñu gungee ko ci kaw su ko defee eh, bismillah <laughs> ñu gañe temps rek incha allah taala mu di waxal ma jottali la waaw mu di Seyda moom ok ndeysaan hmm. dëgg la hmm. macha naa dégg na kàddu yi ah, Seyda moom mooy gërëm mudiir ci jàppale bi nga xam mi ngi koy jàppale xale yi dafa wax ni bureau ak préscolaire bi ñoo taq te dañuy faral di jëfandikoo yoo xam nga préscolaire ak animation ñoo ànd hmm? mais mosul fëgg foofu ni yéen a ngi may déranger wala nangam nangam te guddeeg bëccëm li yëngatoo mooy lu jëmale daara ji kanam moom tamit ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko kàttanal gën ko dëgëral mu mottali yéeneem ci daara ji te ñu fekkee ko incha allah taala hmm? waaw donc kon dañuy bàyyi. Euh, ak suñu ñaareelu conférence bi comme li na ko waxee woon thème bi moom mooy xayaatuna ma alquran mooy nun nan nan mel ak alquran jiili fi mu daaneelee moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom góor woon na ba kaanu xuluquhu alquran maam ñëw ñëw d'accord kon bu ko defee dañuy woo maam Omar mu jàngal ñu ay ayat min azikri alxakim ubbeleeke oustaz waxtaan bi su ko defee su su paree ñu jox oustaz Ahmed Diop mu présenté ñu conférencier bi su su noppee jox conférencier bi incha allah mu dugg ci waxtaanam incha allah taala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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك تلك تلك تلك وغلق صدق الله العلي العظيم macha allah kon dañuy jox oustaz Ahmed Diop defee mu présenté.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 alhamdulillahi alladi allama allama alquran wa xalaqa alinsan wa allamahu albayan wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi wa rattili alqurana tartila wa ala alihi wa sahabatihi wa man iqtafa atharahum ila yawmi ddin amma baadu amma baadu amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew ñi ngi am mbégte ak contentement ci ci bés bu tedd bi ci jataay bu tedd bi ci waxtu yu tedd yi yëkkati suñu kàddu di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moom la yàlla def mu nekk ci bopp école bi di almudir maam Sayer Mbàkke yal na yàlla kàttanal ko ba mission bi nga xam ne moo nekk ci bopp bi suñu boroom def ak ñim ko àndal yépp mu yóbbu ko fa mu ko bëggee wala fu raw njort وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما ci lislaam ci lislaam ku xàll yoon woo xam ne yoonu mbaax la yoonu njub la na nga xam ne am nga tuyaa bay ka def loolee waaye képp ku ca jaar ëllëg yowmal am ak lum ca manti amee da nga am lu ni toll kon yal na yàlla bette ko fa mu nekk njéggal ak yërmaande lépp luñ fi jàng ci arafu xam-xam ak xam-xam ba nu mu mën a demee yal yàlla soppi ko yiw mu fekk ko fa mu nekk waaye yàlla dëgg ci aaral ñu li nga xam ne mooy ndono li mu fi bàyyi ba fa mu ko yéene a àgg ñu yóbbu ko fu raw njortom su ko defee ñuy teg nuyoo ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di ay jàngalekat ak ay parents d'élèves ak ay élèves yëpp ñuy teg nuyoo bi ci loxo mudir euh, mu jot leen ñu nuyoo bi ci ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk ak sa maqaama ak sa daraja euh, tey nag li ñu fi dajale lenn la rek ci mission école bi di Al Azhar mission Al Azhar nag mooy mission yonante bi sallallahu alayhi wa comme ni ko kenn ci conférencier bi jiitu woon sànq doon waxee yonante ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoo leen di donn seen héritier ñi leen di donn mooy boroom xam-xam yi yonante yi nag liñ fi bàyyi ñu koy donn xam-xam la ak njub kon ñi ngi leen di ndokkeel ci bisub weeru koor wi wala ci fani weeri koor wi ak euh, li nga xam ne moom lañuy ñuy séentu ci fan yu mujj yi muy bisub laylatul qadar ak daraja ji nga xam ne am na ko ba sunu borom wax nañu ci la wàccee alquranul karim conférence bi nag bala ñuy ñëw ci thème bi duñu sori ci ki nga xam ne moo koy def di al oustaz Alioune Badara Cissé xaj na ñenn ci ñun ñi teew ci jataay bi mën nañ koo bañ a xam waaye oustaz Alioune Badara Cissé kenn la rek ci jàngalekat yi nekk fii ci al al azar élèves yi fi nekk xam nañ ko jàngalekat yi xam nañ ko ci lu gàtt rek mi ngi fekk baax kokki euh, jànge fa alquranul karim ba mokkal ko jàng fa xam-xam ba toll fii xale yi toll am bagam génn dem bitim réew yokk xam-xamam dem fële ca euh, al mamlaka al arabia jóge fa ak licence ñëw continuer mission bi nga xam ne moom la tàmbali woon jóge fa dem Mauritanie ngir yokk njàngam ci li ñuy tuddee masta euh, ci noonu la nekk ba suñu jonn yàlla tey jii ñu xam ko nag ak yëngutoom ci waar yi ak ci wàll gi koo xam ne yaa ngi koy suivre yaa ngi topp ay conférence yi nga xam ne mi ngi koy def ci biir koor gi ak avant koor gi ci béréb yu bari te wuute muy fii ci Ndar di dakaar di Kokki di Thiès di feneen ak feneen euh, kon bañ a guddal rek kooku mooy Oustaz Alioune Badara Cissé euh, incha allah bu ñu ñëwee ci conférence bi ñu bari danañ ko gën a xam su ko defee thème bi nga xam ne moom la ñu war a traiteel tey mooy kayfa nahya ma al Qur'an ñun en tant que ay jullit naka lañu war a dunde alquran ndax alxuraan dafa nekk lenn ci suñuy meuble rek ñu teg ko ci suñuy armoire wala suñuy gaal wala ñu koy bokk fu ñuy dem wala ñuy jàng nii rek di dem di barkeeloo wala lan moo tax a jóg alquran ak lan mooy suñu relation ak alquran euh, alquran téere la boo xam ne doy na ci rek doon ko defal définition mooy li mu waxal boppam moom alquran ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayaati wa liyatadakkara ulul albaab aaya boobu benn baat rek boo ko jëlee ci aaya bi mën nga cee def conférence buñ jëlee baatu barke bi nekk ci alquran day doy rek ñu wax ni barke ak ngëneel ci alquranul karim euh, mi ngi yem ci euh, malaaka yi ni ñu baree ak seen cër ni mu kawee suñu borom subhaanahu wa taala fa mu leen teg du ñu mooy yàlla mukk dëkk ci def ay ndigalam ka gën tedd ca malaaka yooyee moom dañu jaarale ci alquran barkeb alquran wàcc moom ba fu ñu toll di ko tudd moo tax bi ñuy wax inna anzalnaahu fi laylatil qadri sax dañ naan tanazzalul malaikatu war ruux war ruux boobu mooy jibril bu ñëwoon malaaka yi dañuy wàcc ci guddik laylatu xadar di ndokkeel jullit ñi ya doyoon na sëkk waaye ñu yokkaat ci jibril day wane maqam mu jibril am lan moo ma ko may alquran ci loxoom la jaar wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci yonente yi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, dañu wàccee ci moom alxuraan moo tax mu nekk ki gën ci yonente yi kon barkeb alxuraan loolu rek doyoon na ci sëkk wi gën ci weer yi dañu wàccee alxuraan ci moom moo tax mu nekk weer wi gën ci weer yi kon doyoon na sëkk guddi gi gën ci guddi yi ci biir weer woow yi di laylatul xadar dañu jaarale ci moom alxuraan rek moo tax mu nekk guddi gi gën ci guddi yi kon alquran fu mu mës a jaar rek ci lu mu mës a jaar rek bàyyi na fa barkeem xanaa bañ a jiitu conférencier bi ci temam ab ubbi la woon rek pour wan ne li muy waxtaane tey nii lenn gënu ko am solo ci lu ñuy waxtaane ci kaw suuf ndax nag mooy leetar bi sunu borom subhaanahu wa taala bind suñu lépp nekk ci tey waaye suñu léppi ëllëg nekk ci te ëllëg moom rek la ñuy laaj kon bu ñu bañee jiitu conférencier bi ci temam dañ koy bàyyee kàddu gi di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla fecc aw lamiñam ba li mu yéenee wax ko te muy njariñ loolu yàlla defal ko ci tawfiix ba mu man koo mot matale waaye yàlla defal ñu tawfiix ñu nit bañ man koo taataan ci nopp ak xol buy dunde alquranul karim kon Oustaz Alioune Badara Cissé tafaddal mashkuran majuran bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah subhaanaka allahumma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahumma allimna ma yanfacuna wanfacna bima allamtana wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi fi teew asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru koor wii xam naa nuyo bi dañ ci doyloo rek li Oustaz Ahmed Diop jiital ci turu ci turam la ko wax waaye daf ñuy yóbbaale géew dafa fekk ne rek am na loo xam ne mu ne su ko bañ a tudd mooy lu nekk dafay am njiit dafay am kilifa moo tax dañuy beral nuyoo kilifa ak barab bii di almudir sëriñ maam Sayar Mbàkke Euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax gën caa selli nuyoo di ko ziyaar di ko wàcce wàccuwaayam di rafetlu taxawaayam ci wàll yépp nag di rafet lu taxawaayam ci wàll yépp loo xam ni yàlla lañ koy seedeel la boog liñ ci xam yàlla na yàlla dolli ko tawfiq te dolli dëgëral équipe bi mu àndal di liggéey te yokk seeni ndam te li ñu def lépp yàlla gërëm ko li ñuy ànd di ko liggéey yàlla bu ci bakkan am cër yàlla bu ci seytaane am cër yàlla bu ci bakkan am cër yàlla bu ci seytaane am cër bakkan am ci cër mooy ñu gis ci sunu bopp yàlla bu ci gis sunu bopp seytaane am ci cër mooy mu bañ a sell ngir yàlla li ñuy def yàlla na ci ixlaas jiitu yàlla na ko ixlaas lal kon ñu ngi koy nuyu ni ki noonu di nuyu kilifa yi fi teew yépp nag ak mboolem ñi fi teew élèves yeeg jàngalekat yi ak ñi nga xam ne dañoo wuy si ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci barab bu mel nii nga jël sa waxtu ñëw def ko fa waaye ci jëf ju mel nii nga jël sa waxtu ñëw def ko ca yal na yàlla fay ñépp yiw dafa mel ni li nga xam ne moom lañu tànn di ko waxtaana thème bi de ki ko doon tànn yàlla defal na ko tawfiq yaakaar na thème bi ki ko tànn alquran ñu tànn tem bu aju ci alquran di ko waxtaane ci weeru alquran di ko waxtaane ci barabub alquran di ko wax ak nit yi ñoo xam ne nii dañu jàpp ne nit niti alquran lañ ki doon tànn thème bi jazaahullahu xayran wala ñii ko doon tànn bokk xëy na mën naa bañ a doon kenn waaye mën thème bi moom tànn ma ko dañ ma ko tànnal rek dañ toujours dama naan leen xëy xool leen thème bu ngeen xam ne moom ngeen jàpp ne warees na ko mën a waxtaane kon ñi ko doon tànn itam wax dëgg yàlla am nañu tawfiq ñun ñi ko war a traité yàlla na ñu yàlla defal tawfiq tamit boobu boobu ñi koy teewul yàlla na leen yàlla defal tawfiq li fiy jib ñun ñi koy wax ak ñi koy dégg ñëpp yàlla nañu ko jariñoo alquran ñu war koo waxtaanee waaye nag kayfa naxyaa ma alquran nan lan war a dundeek alquran tem la boo xam ne ni bu am solo la waaye thème bu dangereux la thème bu dangereux la bay boo ñu bàyyi ko xel parce que nag nit kii dafa war a taxawal boppam ci kanamu tem bii xool moom nan la def ak alquran mii nan lay dundeek moom laaj la thème bi ci ala shakli su'al la ñëwee kayfa nahya ma al quran kenn ku nekk taxawalal sa bopp ci kanamu euh, interrogation boobu laaj yow noo def ak téere bi yàlla bi noo def ak alquran daañ ñëw ci lan mooy alquran ci lu gàtt rek kon loolu ñu bàyyi xel ne thème bi am na solo lool de waaye am na xutuura lool am na danger buñ ñëwee ci alquran mooy lan defe naa jullit bu nekk xam na lan mooy alquran jullit bu ne xam na lan mooy alquran xamuk bëmbëstal xam ne lii mooy alquran boo tegoon fii ay téere yu bari boo nekkool ban moo ci alquran mën naa yëkkati ne la bii mooy alquran kon xam nañ ko ci anam gu anam googu waaye buñ ko doon leeral ci xam-xam dañu naan alquran de waxi sunu boroom la waxi sunu boroom la subhanahu wa taala yàlla nag ku ne xam na màggaayam na mu toll noonu la ay waxam di màggee noonu la ay waxam di toll bu ñu xamee ne alquran waxi sunu boroom la rek dañuy xam ne lu ko gën a màgg ci wax moom yoruñu ko waxi sunu boroom la mu wàccee ko mu jóge ca moom wàcc si ci noonu kon dañuy yëg ne yàlla dese na jeneen wax ju mu wàccee wut jooja du alquran waaye ji mu wàccee mooy alquran wàccee ko ci kan wàccee ko ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam alquran bi muy wàcc dafa wàcc sawtan masmuan nekkul lu ñu bind nga mën a yëkkati ne alquran a ngi nii déedéet waaye kaddu la woon goo xam ne nii dañ koy wax nit ki ñu koy waxal mu di ko dégg foofu la yam kon kaddu la woon kalaam waxi sunu boroom la woon subhaanahu wa taala mu wàccee ko jaarale ko ci jibril alayhi salaam mu wàccee ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko ko sax yonent bi di jibril di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dégg bi mu noppee noonu ko ko jibril joxe noonu la ko saaye ñi mu doon jàngal muy sahabatu rasul alayhi salaatu wasalaam alayhim ridwanullahi alayhim ajmain noonu la leen ko jàngale di wax ñuy dégg amul woon di leen bindal naan leen alif ba ta wala ba seen miim déedéet yonent bi jàngalewul woon noonu loolu dañoo dem ba euh, jamono laaj ko jëfandikoo jumtukaay yooyu ñii ñi mu doon waxal ñoom soxlawuñu woon loolu boo leen waxee rek ñu dégg rek dañu daal di mën a jàpp li nga leen di wax waaye jamono bi ku bëggoon sukkandiku ca loola boo moytuwul da nga sonn ci mu jàngale te ñi ngay jàngal du ñu àgg fa nga kon ni ko ko Jibril joxe noonu la ko joxe ñi mu doon jàngal muy saxaaba yi daf leen koo sax loola nag ñu xam ne alquran lépp dañ koy jël bi talaqi alquran lépp dañ koy jële ci gémmiñu ki lay jàngal amu ci lenn loo xam ne nit kee koy jàngal boppam alquranu yutalaqa min afwahi suyux kenn ku ne alquran dangay amut amub sëriñ mu di la ko jàngal la tàmbulee ca ba ngay dal ba ba ngay wàcc ba ngay jeexal lépp dañ la ko war a saa yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp dañ ko koo saa la tàmbalee ci iqra ba ca la mujj a lépp dañ ko koo saa noonu lañuy ñu jàngee boo ko jàngalee sa bopp rek kenn du la ëpp ay yàq téere la boo xam ne nii alquran jooju borom bi subhaanahu wa taala bi mu ko wàccee dafa défier nit ak jinne ne leen nag mi ngi nii ku mën na def man li ma def a ngi nii bu ngeen jàppee ne lii ay caaxaan la def leen li ma def ubbil leen bunt ku mën na def waaye weesu na loolu sax daf na leen yéen ñëpp ànd leen def li ma def def leen lu ko nuuru rek kon alquran yàlla daf cee défier daf cee dëkk nit ak jinne ñu lott lool ci indi ko alquran jooji mooy li nga xam ne nii moom lañuy jaamoo yàlla bu ñuy julli moom dong ko mën a jàng ci julli julli nga wér lu ay wax màgg màgg gis nga boo doon julli sañoo julli jàng faatiha ba pare naan yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu loolu kon wax yàlla la waaye sañoo ko jàng ci julli li nga sañ jàng ci julli mooy alquranul karim mutaabadun bi tilaawatihi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon ci gàttal rek mën nañ ni loolu mooy alquranul karim xam nañ ne waxi borom bi subhaanahu wa la ji mu wàcce alquran nag yaatuwaayam ni mu toll gën na yaatu loolu maanaam niñ koy gisee nii ci jëmmam yaatuwaayam waayam jéggi na loolu ndax téere yi yàlla wàccee woon ci yeneen yonent dafa jël téere yooyu yépp boole leen ci biir alquran dafa jël téere yooyu yépp dëxëñ leen ci biir alquran moo tax bi alquran wàccee ba noppi leneen valable atul moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas naa gis Omar ibnul Xattaab mu yor benn am lu mu yor lu bokk ci tawraat yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko gisee dafa mer ne leen xanaa da ngeen di xaru xanaa dangeen ngeen di xaru maa ngi lay waatal ne Muusa mi ñu wàccee woon ci moom tawraat bu ma bu ñëwoon ci jamono amul lenn lu mu mën a def lu du topp ci sama gannaaw alquran dong la mën a jëfandikoo. alquran dong la mën a jëfandikoo kon bi alquran bi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wàccee beneen yonent walaabalatul bi alquran wàccee beneen téere walaabalatul képp ku alquran agsi ci moom alquran jooja mooy walaabal ci yow kon dafa folli li ko fi jiitu woon waaye li ko fi jiitu woon dañ koo jël tënk ko ci biir alquran noonu lañ jëlee alquran jëpp tënk ko ci biir faatihatul kitaab mu màgg lool noonu lañ jëlee faatiha léppam tënk ko ci diggante aaya bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moo tax nga gis ku mel ne ibnul qayim rahimahullah bind téere madaariju saalikin bayna manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maanaam daanaka nit ñëpp foofu lañu ñu rawante buñ ñëwee ci biir xëy na dana gën a leer kon loolu mooy alquranul karim lenn ci ay ngëneelam faw ñu tudd ko gannaaw bi ñu loolu sax dañ ko fàtte woon ci point yi nga xam ne ni moom lañu bëggoon programme euh, muhaadara bi conférence bi tëdd ci weesuwul ñetti point daanaka benn bi mooy xamle luy alquran comme ni ñu ko defee léegi tudd yenn ci ngëneeli alquran mooy deuxième point bi troisième point bi mooy nag alquran jooju nu ñu def ak moom nu ñuy def ba dund ko wala nu ñu koy dundee noonu kon bu ñu bëggee tudd lenn ci ngëneeli alquran lenn lenn alquran ngay ngëneelam nit lott na ci di ko tudd waaye lenn ci ngëneeli alquran alquran mbokk yi lu màgg la lool ba jéggi dayo bokk na ci ay ngëneelam Oustaz Ahmad dafa wax sànq am na aaya bu mu tudd ne barke téere la boo xam ne nii bu barkeel la waaye lépp lu ko laal barkeel lépp lu ko laal barkeel lépp lu taqoog alquran loola day barkeel loola day aaru loola day sàmm loolu alquran la ko yàlla jagleel ay ngëneelam ci la loolu ci la bokk kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak mubaarak téere la boo xam ne ni yàlla nee na noo ko wàccee waaye muy téere bu barkeel kon ku bëgg barkeb àdduna ak barkeb alaaxira barkeb dund barkeb wér barkeb njaboot barkeb loo mën a bëgg taqool ak alquran taqool ak alquran bokk na ci ngëneeli alquran mooy ni alquran mooy li yàlla tànn ne nit ki boo ci tënkoo jub boo ci jàppee jub yàlla li mu ko tudde hudan la ko yàlla tudde hudan alquran njub la ku feeg yaa ngi ci ngoy rek xamal ne yaa ngi ci yaa ngi ci njub moo tax yàlla nee nañu alquran ji loo jël domaine boo dem fam lay tracel fam lay jaarloo foofaay fa gën a jub munoo am leneen lu ko gën a jub inna yax di yahdi lillati hiya aqwam yàlla nee na alquran ji côté boo jël rek foo ko soxlaa rek fam lay orienté mooy orientation ba gën a jub lam lay rëddal mooy yoon wa gën a jub fu mu mënti doon nag fu mu mënti doon lu mu mënti doon lala alquran naan la jëfeel nii jaareel nii defe ko nii lël loola leneen loo mën a jël bàyyi nga la gën bàyyi jël jël lañu gën yahdi lillati hiya aqwam kon alquran njub la goo xam ne ku ci jàpp ku ci ngoy doo tarxiis ku ci ngoy ci leer ngay dund doo dund ci tâtonnement doo dund ci làmbatu bokk na ci ngëneeli alquran mooy muy ngëneel lu màgg mooy ñoñ alquran yàlla daf leen a boolewut ak kenn daf leen a yemalewut ak kenn ba jël leen taf ci boppam jagleen leen boppam loolu yombul loolu eh, wala boog ñu ne yomb na yombul maanaam yàlla jël la boo def la ngay njabootam loolu yombul moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko waxee saxaaba yi ñu jaaxle bi mu ne inna lillahi ahliina min annaas yàlla de am na aw ñoñ am na njaboot ci biir nit ñi saxaaba yi dañ ne ko man hum yaa rasulallah ñooñ moom ñu mu war a doon yàlla moom lañ jàngoon mooy xam nga ñun njaboot liñ ci xam mooy ki nga bokkal wala ñi nga xam ne yaa leen meññ yàlla nag dañ ñoo jàngaloon ne ñu lam yalid walam yulad yonent bi xëy ne leen inna lillahi ahliina min ñu ne ko ñooñu moom man hum ya rasulallah ñooñu moom ñu mu war a doon mu ne leen ahlul qur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñ alqur'an ñooñu ñooy ñooñ yàlla ñooñu ñooy njabootu yàlla waaye ñooy ñi yàlla jagleel boppam nga xam ne séddoowu leen ak kenn bokku leen ak kenn loolu ngëneel du ko gën a rëy nga xam ne yow mii yàlla daf laa daf laa soxla daf laa sopp daf laa taf ci boppam dafa doxalewul kenn sa digganteeg moom loolu lu la ko lu la ko mën a may na la jaral lu ne te mooy alquranul karim bokk na ci ngëneeli alquran yooyu mooy ne alquran day yëkkati ki nga xam ne nii dafa taqoog alquran jooju alquran daf ko yëkkati alquran daf koy yëkkati gis nga mbokk yi Euh, Oustaz Ahmed junj na ko sànq alquran fi mu jaar yàlla bi mu ne inna anzalnaahu fi laylatil qadr inna anzalnaahu fi laylati mubaraka layla boobu muy laylatul qadr ni mu gën a at mi ñaata ñaata guddi moo ci nekk bari na lool yàlla tànn ci genn guddi googu ne mubaraka guddi gu barkeel guddi la goo xam ne ni li yàlla di àtte ci at mi mu war a xew ci at mi yépp ci la koy amal fiiha yufraqu kullu amrin hakim lépp li nar a xew ci at mi ci guddi googu la lañ koy amal guddi googu dafa barkeel parce que alquran daf cee jaar wàcc daf cee wàcc lu ko laal barkeel euh, alquran day yëg moo tax guddi googu mën nañ ne alquran a ko yëkkati waaye jibril alayhi salaam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ñun ummatu muhammad ñi nga xam ne ni ñun lañ wàccee ci ñun alquran yàlla lim ñu seedeel mooy kuntum xayra umma am na yeneen i xeet yu fi jaaroon daan dund junni at ak lu teg nit da ci ñoom da daan dund junni at ak lu ñun suñu suñu suñuy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne sama xeet seen dund moom diggante 60 ans ba 70 ans la dana am ñu koy weesu waaye foofu mooy euh, daanaka nattukaay bi am na ñoo xam ne duñ ci àgg am na ñoo xam ne daañu ko weesu waaye nga xam ne kon dund gu gàtt la yàlla jël barkeb dund gu gudd googee defal ñu ko ci sunu dund gu gàtt gii nga xam ne ki ci sa dund barkeel gàttatul gudd na lool boo fexee ba sa dund barkeel te mooy nga jaar fi nga war a jaar dund alquran ni nga ko war a dunde xamal ni sa dund barkeel na te bu boobaa mooy gudd nga fan moo tax li yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni waxoon ni xayrukum man taala umruhu wa xasuna amalu man taala umruhu ki gudd fan gudd fan du wàññi at yu bari wa xasuna amaluhu te jëfam rafet jëf ju rafet jooju mooy wane ne gudd na fan am na ñoo xam ne nii bu ñu leen dee tudd di wax seeni jaloore da nga naan dañu fee dund téeméeri at te fanweeri at amuñu ko fi am na ñoo xam ne ñeent fukki at amuñu ko fi al imaamu nawawi rahimahullah daanaka kër goo dem fekk fa riyaadu saalihin kër goo dem fekk fa riyaadu saalihin daanaka kër goo xam ne nii dara ci xam-xam nga fa ñaare boo fa demee fekk fa riyaadu saalihin bu lay kitaabul azkar xale yu ndaw yi sax daanaka ñu ci bari yor nañ ko alimaamu Nawawi amul 45 ans bi muy faatu amul 45 bi muy faatu gudd na fan wala guddul fan laa chaque ne gudd na fan lool lu ko waral ak dundam daa barkeel dafa jëloon dundam googu jox ko alxuraan kon gudd fan nekkul ci at yu bari yu ñuy lim waaye mi ngi aju ci xiim ak dund googu ki ko dund ci lan la ko dund kon alquran day yëkkati aw ñoñam yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu waxoon mooy inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman wa yadau bihi axarin yàlla ci téeréem bii dana ci yëkkatee aw nit bañ kawee ba faw waaye dana ci wàccee aw nit bañ suufe ba faw kon ku bëgg a yëkkati ko nooy def jàpp ci téere bi ndax téere bi moom daa yëkkati ko ku ci jàpp yëkkati ko ku jëm kaw ku la topp jëm kaw ku la bàyyi jëm suuf rek moo tax ci la yàlla di yëkkatee aw nit ñu kawe ba faw ci àdduna ak alaaxira nag waaye ci lay wàccee aw nit ñu suufe ba faw feeg dellu suñ ci kon ku bëgg a yëkkatiku jàppal ci alquran kon ngëneel la lu màgg ndax alquran day yëkkati aw ñoñam day yëkkati aw ñoñam fii ci àdduna gis nga ci lislaam sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ñu jàngal mooy bu ñu demoon ba julli jot ka gën a yey ci jiite mooy ka gën a jekko alquran ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ya ummul qawma nit ñi ki leen war a jiite aqra'uhum li kitaabillah mooy ki leen gën a jekku bi yàlla bi kon alquran jiital na jiital na ñoñam yëkkati na ñoñam loolu mooy bu ñuy dund de waaye gis nga même bu ñu faatoo même bu ñu faatoo ca barzax ñooñ alquran ñooy jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaswatu Uhud xam ngeen ne jullit ñi dañ fa rey ñu bari te barab booba fa lañ leen denc boo demee da nga gis ñu defar ko tuddee ko maqbaratu shuhada nga xam ni fañ faatoo foofu lañu defar denc leen fa foofu lañu gas denc leen fa te foofu gis nga ni mu dëgëre neexut a gas ba noppi ab lim lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu doon def da doon boolaante ñaar ci benn armel benn bàmmeel wala ñett ci benn bàmmeel waaye bu ñu gasee bàmmeel ba war leen dugal lu muy laaj kan ci ñoom moo ci raw ci alquran moo ci ëpp lu mu yor ci alquran ñu ne ko kii mu ne na jiitu na féete xibla na féete penku na jiitu ka ca topp topp ca ka ca topp topp ca kon bu ñu faatoo sax ndegete borom alquran ji mooy jiitu kii ki dul borom alquran waaye yemuñu foofu bu ñu demoon ba aljanna dugg aljanna alquran day yëkkati aw gaayam ki nga xam ne nii da doon jàng alquran di yittewoo alquran di nab nabi ci alquran ak ki nekkoon ci leneen du ñu yem de mukk ci àdduna du ñu yem fii du ñu yem fële. alquran dañuy dem ba dugg na ba noppi am na loo xam ne dana ko def bala ñoo dugg aljanna danaa ci ñëw waaye dañuy dem ba dugg na ba noppi ñu ñëw ci ki nga xam ne nii nag dafa yoroon alquran di ca di ca di ca di ca sonn ñu ne ko kaay yow moom dugg nga ba noppi aljanna ay ay ay ay étage la yoo xam ne nii kaw la jëm wala ñu ne immeuble la wala mënuñu ko tudde sax gratte ëpp na loolu waaye daal kaw la jëm ay darajaat la yoo xam ne ni daraja buñ bu féete kaw rek moo dàq ba ko féete suuf borom alquran nag bu ñëwee na dañ naan ko jëlal ascenseur bi xam nga bu dee foo xam ne soriwul premier étage loolu deuxième étage mën nañoo jël escalier waaye alquran moom waaye aljan na moom escalier dafay dafay fa mu jëm ca kaw foofa assenseur moo fay dem dañ naan la jéew daal jëlal ascenseur bi iqra warqa wala wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda axiri ayatin taqra'uha yonent bi nee na borom alquran bu ñëwee aljanna dañ naan ko yow daal del jàng di yéeg rek del jàng di yéeg aaye boo jàng yéeg ab daraja yéeg benn benn grade xamal ne daal yow fa ngay yem yaa fa yemale sa bopp loo li nga man ci alxuraan fu mu yem rek sa dëkk waaye foofa la kon ki nga xam ne faatiha rek la mokkal ah sabon aayaat la de suratul faatiha sabon aayaat la sabon darajaat ngay am de kon waa ki mokkal suratul baqara nag ñaata aaya la miataani wa sittun wa samanuuna aaya 286 xool ñaar ñi niñ soree faatiha màgg na lool de waaye ki mokkal baqara daa mokkal faatiha noppi xoolal lim la tiimee xoolal lim la dàqale ku la tiim moo la gën le moo la dàqale ci ay ay ay ay grade moo la ko tiimee waaw ki nga xam ne nii nag moom alquran mokkal na yokk na ca far Ali Imran ñaata aaya la mi ata aaya kookaay tiim keekee mokkal baqara rek yem ca waa ki ñëw ba minal jinnati wan naasi nag nga xam ne alquran jépp macha allah tabaraka rahman yal na yàlla boole ci ña ko jekku te di ko jëfe kooku fu mu jëm kooku ma maa nabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin wa xasuna ulaika rafiqa kooku moom fi ala illiyin fa la barabam di nekk fa la wàccuwaayam di nekk yàlla na ci yàlla boole kon alquran day yëkkati aw ñoñam fii ci àdduna di leen yëkkati ca barzax waaye di leen yëkkati ca àllaaxira alquran day ràmmu ki nga xam ne nii da ko doon jàng di ko sonne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def nañu iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi dee leen jàng alquran yonent bi nee nañu dee leen jàng alquran ndax alquran ji ëllëg yowmal qiyaamati day ñëw di rammu aw gaayam alquran moom rek mat a àndal ndax moom yowmal qiyaama jaaxle daf jaaxle du fa jeex waaye boo jaaxlee keroog nga gis ko nag moom fa innahu yaati mooy ñëw ci yow de moo lay fekk si yaati yowmal qiyaamati shafian li ashaabihi day ñëw di ràmm ci aw gaayam loolu ngëneel lu rëy rëy la am ràmmuk alquran yowmal qiyaama lu lu màgg la lu tedd la yàlla bu nu ko yàlla xañ waaye waxuma sax ki nga xam ne nii moo doon jàng alquran waaye dafa am soxna Kumba lu mu fi wax léegi mooy am njaboot jël ko sédde ko yàlla am njaboot jël ko sédde ko yàlla mbokk yi loolu ndax ñi ngi ciy bàyyi xel ndax ñi ngi ciy bàyyi xel mbaa xam nga ne sa njaboot yóbbu woo ko fu gën fa ñuy jàngee alxuraan mbaa xam nga ne sa njaboot bu fekkee am nga ñaari doom ka nga jël yóbbu fa ñuy jàngee alquran loo defal kii rek bay boo nga defal kee fukkam loolu mbaa ñi ngi ciy bàyyi xel ànd ak ne nag booy xool daanaka la contraire mooy mooy mooy am ci ñu ñu bari ci ñun bari ci ñun daara ja moom bu ñu fa yóbboo sunu doom daanaka bàyyi nañ kook sëñ daara ba te nag la waaja waxoon ne la sëriñ ba waxoon ne bu fekkee mënoo dara xamoo dara jël sa doom jox ko ku xam dara waaye mënul dara ba noppi war luloo ko dara bu sa doom xamul dara bul wax kenn dara xamoo dara li nga bëgg mu nekk ci sa doom mënoo ko def ci moom de sa doom da bëgg mu jàng xam mënoo ko nga jël ko jox ko ku xam dara waaye mënul dara sëñ daara bi mën naa jàngale waaye kattan gi demewul noonu kon xam na li mu war a def ci sa doom waaye man-manuy tal ko nag kon nga jox ko ku xam dara waaye mënul dara ba noppi warluloo ko dara wan ko gannaaw dem bu sa doom xamul dara bul wax kenn dara yaa deful dara loolooy dëgg kon jël sa njaboot sédde ko yàlla ndax xam nañ ni mu tolloo dañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax dañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax tey fier ci sunu doom yi nga xam ne ni dañoo nekk ci barab yi ñuy jàngee alquran di fa jàngee diine ñëw féete kaw fuuf ñi nga xam ne dañ leen dugal feneen bokkuñu bokkuñu. ni alquran gën a màgge leneen lu dul moom kii ci alquran noonu la gën a màgge keneen ku dul moom loolu ndax ñu ngi koy bàyyi bàyyi alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko wax xayrukum ki gën ci yéen xayrukum xayrukum man taallama alqurana wa allamah yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi wëlbati ko di ko jàngale am na meneen pirin am na meneen pirin ki jàng alquran ba noppi wëlbati ko di ko jàngale kooka moom kenn féetewu ko kaw waaye xayrukum ki gën ci yéen man taallama alqur'ana mooy kii jàng alqur'an wa allama ak ki koy jàngale ñoom ñaar ñëpp am gëneel ñoom ñaar ñëpp am gëneel kon alqur'an ki ci nekk rek kooka ko am gëneel la. alqur'an yow moom yi nga xam ne da jël sa njaboot yóbbu ca fañ koy jàngee ëllëg yowmal qiyaama teraanga ji la yàlla di teral maanaam ñaari wayjur yi nga xam ne dañoo jëloon seen doom yóbbu ca fa ñuy jànge alquran ca daara ja ëllëg yowmal qiyaama dañ leen di solal col goo xam ne ñoom ci seen bopp dañ naan waaw ñun bi ma ko siina haada waaw lii ñu ñu solal moom fu mu jógee fu mu jógee mbaxana mi ci kaw ba ci suuf lépp leer lay doon wurus ñoom ci seen bopp ñi ko solal dañ naan waaw ñun lii fu ñu ko jëlee ñun moom xam nañ ne jëfuñu lu toll nii moom fu ñu jëlee lii lu ñu leen di tontu seen doom jangeen ngeen doon jàngaloo alquran moo leen jural lii nangu gi ngeen nangoo jël seen doom yóbbu ko mu dem jàngi alquran moo leen jural lii waaw kon doom ji moom lu war a doon cëram ndegam moom moom moo doon jàng moom ñee sax jànguñu dañoo jàngalu waaw moom comme moom mi doon jàng moom moo waral coow li kon lu war a doon cëram moo tax al imaamu Shaatibi rahimahullah di di bàkk ki nga xam ne nii day jàng alquran di ko kañ di ko di ko di ko bàyyiloo xel xéewal yi nga xam ne moo koy xaar fa yaa ayuha alqaari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli xaalin mubajjila ne yow miy góorgóorlu jàng alquran mooy ci ci jamono bu nekk nga def ko muy sa lépp hani an mari an nee maa ngi lay ndokkeel ndokkle hani an mari an ndokkeelu la yow ci sa bopp rek de waaye lim lay ndokkeela daf cee bokk ne ko waalidaaka alayhima malabisu anwaarin min attaaji wal xula nee na li ma lay ndokkeele mooy sa ñaari way jur li ñu leen nar a terale ëllëg mooy malabisu anwaar ay mbubb yoo xam ne nii leer lay doon mbaxana ma ba ca lépp leer lay doon min attaaji wal xula la ñuy sol mbaxana ma ak la ñuy sol ci yëre lépp malaabisu anwaar lay doon nee nag bi mu paree ci loolu dafa ne fa maa zannukum bi najli inda jazaihi waaw ndegam ñee la ñuy fayeelee fa maa zannukum bi najli lu lu ngeen xalaat kon ci ki nga xam ne moo waral coow li xale bi waral coow li nga xam ne moo doon jàng ba ñuy teral ñi ko doon jàngloo moom moom kon moom lu lu ngeen xalaat ci moom doy na sëkk rek ulaayika ahlullahi wa safwatul mala ulul birri wal ihsaani wa sabri wa tuqaa xulaahum biha jaa alquraanu mufassila nee na doy na ko teraanga rek ñu ne la kii moom yàllaa ko jël taf ci boppam doxalewul kenn digganteem ak moom loolu dong doy na teraanga doy na comme ni ñu ko waxee woon sànq. ñee sax yàlla da leen booleeg malaaka ñu solal leen nangam nangam def ak ñoom teral leen waaye kii moom yàlla daf cee xajalul kenn daf cee xajalul kenn da ko jël taf ci boppam. ulaayika ahlullahi wa safwatul mala ñooy ñu tànn ci ñépp féetale leen kaw ndax luy mbaax ñooma luy mbaax ñooñu alquran la ndax luy mbaax alquran la lépp lu rafet alquran la kon ñooñu alxuraan la nee na boo bëggee xam seen mbir duggal ci biir alquran nga xool gaa yi alquran fan la leen alquran classé ak lan la alquran di wax ci ñoom kon alquranul karim day yëkkati aw gaayam day yëkkati képp ku ci taq waaye eh, buñ ne ki nga xam ne nii ci ñooñ alquran la bokk bul jàpp ne rek ki koy jàng la waaye yow way jur wi nga xam ne nii dangay ngay jàngalu alquran yow mi nga xam ne yàlla daf laa mane gan jox la wërsëg xëy na mën naa am sax amuloo njaboot waaye am nga alal nga tàggat ko di ko def ci ñiy jàng alquran ba ñu tal ko cër bu ñu am nga am ko cër bu ñu am nga am ko moo tax sa alal fexeel ba alquran yëg ne am nga alal lu mu tuuti tuuti bu ci kenn xeeb boppam gis nga jullit ñi ni ñu toll ni ñu toll bu fekkonte ne tey école bii école bi bu fekkonte ne ñi ci nekk ñëpp parents d'élèves yi parents d'élèves yi dañ doon def weer wu nekk rek am nañ benn numéro wéef boo xam ne ni weer wu nekk man daal man en tant que parent d'élève gàlloo naa weer wu nekk moom danaa wéef 1000 francs mbokk yi loolu bu dajee ñaata la semaine bu nekk semaine laa wax semaine semaine bu nekk danaa wéef 1000 francs loolu jafewuñu ñun li ñuy lakk ci suñu téléphone yi surtout jigéen ñi li ñuy lakk ci suñu téléphone yii ci ci ci connexion par bis nu muy toll bu sa connexion jeexee boo ko amul dootoo doon nit dootoo doon nit li nga ciy def nu mu toll loolu yi nga ci def connexion bi fi nga ko ci defee ba fi mu jeexee xalaat nga ba xam lu mu la jariñ lan nga ci def yow luy luy bégal yàlla lan nga ci def lu lay jariñ àdduna wala lu lay jariñ àllaaxira naka moog boo jëloon loolu. def mille francs yooyu nga ne du ma jënd connexion dama koy wéev ca daara ja keneen def noonu keneen def noonu ñaata parents d'élèves ñoo ci nekk élèves yi élèves yi élèves yi fii jànge loo xam ne ni kenn laaju leen ko dañ koy def te yàlla tax ngir lan ngir ne barab bi may defar dama ko war a defar man barab bi moo may defar kon naa ko defar man élève bi ma ne man daal bis ne ki tey gàlloo naa semaine bu ne danaa wéev 100 francs mu dem ci école bi 100 francs laa kan moo ko ci mënut ban élève moo ko ci mënut doo ko yëg doo ko yëg xam nga ñun dañuy dañuy dañuy gis nga fa min samara namat wa saarat sajara fa xabbatun min samara namat wa saarat sajara gis nga garab gii li ngay gis muy meññ ci ay doom ni muy baree te pourtant benn doom a ko jur bu ko boroom xeeboon ba bañ ko bañ koo ji du meññ du am meññet mu toll noonu garab dañuy ji benn doom mu meññ ba meññet moom réew mu ne mu dem fa ñu daggee ko Casamance mu jóge fa dem dakaar dem duy fa mango mango benn doomu mango mais sax genn garabu mango meññ ay doom ñu duy ci ay dàmba yii dem dakaar yii dem tuubaay yii dem Ndar yi dem Louga yii dem foo ne ci réew mi benn doom a ko jur. bu fekkonte ne ka ko ji da koo xool ne ah benn doom di jaralu ma sonn moom benn doom mango rek laa am bu ma amoon lu bari sax nga ne waaw waaye benn doom jaralu ma sonn wala genn garab jaralu ma sonn ndax dana am loolu mu ci am du ko am kon bul xeeb. ñun alquran gis nga ñun xanaa suñu yëf ñun mën nañ koo financer suñ bopp te duñ sukkandiku ci kenn waaye ndax yoon wu ñu war a jaar jaar nañ ci lii yoon wu yomb la yoon wu yomb la kon yow miy jël sa alal di ko def ci alquran jàppal na ci ñoñ alquran nga bokk kon ci ñoñ alquran nga bokk yooyu ay ngëneel la yoo xam ne ni alquranul karim daf koo am nee naa leen ngëneeli alquran nit lottu na ci toog ci barab di ko lim waaye buñ ca waxee lenn dana tax xëy na nit ki sawar ne ah man kat naa fexe bokk ci ñii ñu lim ndax ngëneel yii kat bëgguma mu raw ma yéene naa ko sama bopp loola mooy jubluwaay bi ci tudd al alquran lenn ci ngëneeli alquran ngir soññu nit ki mu xemmeem ko xemmeem loo ko nit ki ba mu bëgg ca jot waaw alquran jooju d'accord nañ ne lu màgg la de defe naa d'accord nañ ñun ñëpp gannaaw kàddu yii fi jib d'accord nañ ne lu am ngëneel la de wala déet nun def ak moom li gën a garaaw ci thème bi mooy nun def ak alxuraan lee moom li ñu doon wax léegi moom du nun màggaayu alxuraan du ñun ngëneeli alxuraan du ñun yàllaa ko defal ñun nag ñun suñu cër ci alxuraan lan la nan lañ def ak alxuraan alxuraan ji <clears throat> nañu xam ne yàlla daf ko indi muy manhaju xayaa maanaa alxuraan yàlla daf ñu ko jox nañu seen léppi dund ni ngeen di dunde lépp jële leen ko fii ni ngeen di dunde jële leen lépp ci téere bi moo tax di lillati hiya aqwam fu mu leen joxañ rek foofaay fa gën fu mu leen yoon wu mu leen rëddal rek jaar ca mooy yoon wa gën kon seen lépp dee leen ko jële ci téere bi tàmbuleek ñun gis nga alquran bi mu ñëwee di wax ak waa Quraysh dafa tàmbuleeg ñoom ci defar pas-pas boo ñëwee ci wàllu pas-pas alquran pas-pas ba mu lay jox mooy ba gën lam lay wax ne la nii la ngëm war a mel loolaay la gën loolaay la gën di lillati ak aqwam inna hada al qurana di lillati hiya aqwam boo ñëwee ci wàllu ngëm xoolal fi mu jaar ak ñi nga xam ne ni ñooy ñi mu doon waxal ci jamono booba di wax ak ñépp nag ba tey ba àdduna di tukki wet gu wet gune jaar na fa ak ñoom ndax lan li yàlla bëgg a saxal ñu nangul ko ko yàlla lu mu bëgg a saxal doon gum doon yàlla moom dong te kenn fekku ko ca gis nga boo jëloon faatiha tey xoolal alhamdulillahi rabbil alamin allah kenn mus koo tudd kenn dootu ko tudd allah turu kenn dong la kenn du ko allah rabbul alamin rab bu mooy koo xam ne nii daa moom waaye li mu moom moo ko wutal boppam waaye loolu yi mu wutal boppam ba moom ko moo koy saytu lépp lu loola laaj ma ngi ko cay def gis nga al aalamuna lépp lu dul yàlla rek ci aalamina la bokk lépp lu dul yàlla yàllaa la moom moo la amal waaye itam say mbir ci loxoom la nekk moo koy saytu kooku muy rab dafa am nu mu leen yore nag moo tax arrahmaani rahim dafa am nu mu leen yore moo tax yow mi mu jël ci li mu moom dénk la na nga jëfandikoo arrahma ndax nga mën leen a yor parce que yàlla bi mu xamee ne mooy borom bindaafoon yépp ba noppi dafa am dafa ay melokaan yoo xam ne ni moom la leen yore mooy rahma arrahmaani rahim toujours loolu buy dugg ci seen xel seen xel day dal. buy dugg ci seeni nopp seen xel day dal ñu xam ne ki ñu amal affaire ku bari yërmande la day tax ñu nangul ko di melal boppam di melal boppam lépp di saxal yàlla doon gi mu doon yàlla moom dong kenn fekku ko ca maliki yow mi diin wala yow mi gis nga yii bu saxee ba pare yow miñ koy wax dara waruta waru caa topp lu dul iyaaka naabudu wa iyaaka nastaan lii daal lii koo xam ne nii lii sa cëra awma keneen ku may jaamu ko dul yow iyaaka naabudu wa iyaaka nastain awma keneen ku may sukkandiku ci moom di dimbandiku ci moom ku dul yow yow nag yaa ma mën a dimbale ci jaamu gii ma pacte bi may signé ak yow ne la yow dong laay jaamu yow rek yaa ma ci mën a dimbale moo tax iyaaka nastain yow dong laay sàkku nga dimbale ma ba lii ma ne iyaaka naabudu ma taxaw ci bañ cee jóge léeg-léeg nag ñun war nañoo laaj suñu bopp de mbaa duñ taxaw ci biir julli taxaw ci sunu kanamu borom di wax ak moom loo xam ne du dëgg nun mbaa léeg duñ taxaw ci biir julli taxaw ci sunu kanamu borom di ko wax muy dégg te ñu xam ne liñ koy wax du dëgg mu xam ne liñ koy wax du dëgg iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu te fekk yaa ngi ci leneen yàlla di wax ak moom ba mu wuyu la nga ne ko yow dong laay jaamu keneen bokku ci leneen bokk ci wa iyyaka nasta'in awma keneen ku may sàkku ci moom ndimbal ku may wéeru ci moom ku may dimbandiku ci moom ku dul yow mbaa doo ko wax ba nopp fekk boo moytuwul sax jamono bi nga koy wax yaa ngi làmboog loo xam ne nii loola nga yaakaar kon li ngay wax mbaa dëgg la loolu mooy kon nañu xool ni ñuy dundeek alquran ñun mbaa duñu wax di jàng alquran alquran di ñu yedd naan leen ah aaya bii nga jàng léegi de nekkoo ci yow aaya bii nga jàng léegi nekkoo ci de moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne rubba qaari'in lil qurani wal quranu yalaanu yàlla nu ci yàlla musal nee na bari na kuy jàng alquran alquran wëlbati ko di ko rëbb alquran wëlbati ko di ko rëbb alquran bu ne wa kunu maa saadiqina de toujours dee leen ànd ak ña dëggu dee leen dëggal te yow koo digg war ko loo wax nit ki du boo clignoté gauche bay boo koy waxal na jàdd droite waaw alxuraan xoolal sa diggante ak alxuraan kon mbokk yi alxuraan jii sunu sunu dundiin ci lañ ko war a jëlee dañu xool nan lañu def ak moom kon mbiru pas-pas alquran fu ne jaar na faak ñi mu doon waxal walla nun ñi muy waxal di wax ak ñoom di wax ak ñoom ba wan leen li yàlla def lépp mu wan leen ko ne leen nag a ilahum ma allah a ilahum ma allah lii yàlla def ndax nangu na ndax xel nangu na ñuy jël keneen di ko jàppe yàlla ku dul yàlla ndax xel nangu na keneen mën a bokk ak moom jëf lii lii kenn dong ko mën a def moo tax yàlla ne asamaan ak suuf bu fa jeneen yàlla yàlla mi fi nekk bu ko fi keneen wétli woon rek dara du dox law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata nee nag jeneen yàlla ju fi nekkoon naan day wétli yàlla dara du dox nañu xool rek bu nawet jotoon tey mu bëgg a taw taw bi ci loxol kan la nekk yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bu fekkoon jeneen yàlla dafee nekk joo xam ne nii même sañ-sañ yi yàlla jooju am la am bu yàlla nee tey waa njaambur laa bëgg a tawal yàlla ji des ne ko noonu nañ bàyyi ba suba tey fee laa programmé woon kañ lay taw école bii ñu nekk daara jii ñu nekk bu fekkonte ne ñaari mudir yu tolloo sañ-sañ ñoo fi nekk ndax dana dox sëñ Mame Sayar du def lu sotti de boobaa bu fekkoon dafay nekk koo xam ne ñoom ñaar ñoo tolloo les mêmes prérogatives li kii sañ de à Z moom la kii sañ de à Z ñoom ñaar ñoo tolloo ci lépp. yàlla nag bu ñu nekk nag surakaa mutasaakisuuna nag ba noppi wuñ nag far <clears throat> yàlla bu loolu am ba noppi nag faruñu juboo ngal la booba école du dem fenn du dem fenn parce que lu kii bëgg rëdd kii ne lii li ma programme mooy far ko bu kii programme gas kii programme suul poussière ay bare rek waaye pax du am bu kii ne kii nañ ko jël kii ne ko déedéet kii duñ ko jël lu kiy wax kii indi la ca des parce que surakaaw mutasaakisoon te surakaaw nag mutasaakisoon dañuy bari da parce que intérêt fu mu ñëw daanaka conflit day am moo tax yàlla rek moo valable ngir doon yàlla saxalal na leen ko ci ci alquran di ko waxee ci anam yu nekk di wane ni li yàlla def awalam yanzuru fi malati samaa'i wal ard wa ma xalaqa awalam yasiru fi l ardi fa yanduru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg ñuy setantal di xool ngir xam ne àdduna bi ñuy xool di ko gis àdduna bi ñuy xool di ko gis mën ki ko fi indi kooku fu mu ne jaare leen fii rek jaar foofa rek mooy tax a mucc jaar foofa rek mooy jàmm àdduna sii ñu nekk day day day ñëw di dëggal alquran jii ñu yor alquran di ñëw di dëggal àdduna sii ne yàllaa ko bind moo tax dañuy wax ni alquranu kawnun naatiq wal kawnu quranun wal kawnu quranun saamit alquran ji boo ko xoolee univers bi la lay jox univers bi la lay jox yàlla li mu ci expliquer lépp xool leen li ma def xool leen li ma defe nangam xool leen ni tàmbalee ko ci nit fi ko yàlla yàlla jaar ak moom ba mu koy bind ba fi mu agsee ak moom ba fa mu jëm ak moom xool leen li leen wër asamaan si ñu tiim kayfa banaynaaha wa zayyannaaha wa maa laha min furuj yàlla nee na xool leen asamaan si leen tiim xool leen nan lañ def ba tabax ko xool leen ni mu taaroo bu guddi jotee fu nekk nga seen biddiw yi ni muy mel asamaan si ni muy rafete wa zayyannaaha wa maa laha min furuj doo dégg mukk nag fu ñu naan fee asamaan sa day seen wala day wala ñu naan dëkk sangam asamaan sa dafa màbb wala dafa daanu moom lañu ñoom la ñu dimbala ji mosuñu koo dégg bañ juddoo ba léegi nii lañ gis asamaan tiim ñu nii lay continuer di ñu tiim wal arda madadnaaha yàlla nee na nañu xool suuf si ni ñu def ak ni ko def niñ ko tàllale lalal leen ko mu nekk seenu basang wa alqaynaa fiha rawaasi ñu samp ci ay poto yoo xam ne mooy montagne yi nga xam ne ñoo téye suuf si ba du doo ci joggi muy potax wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij lépp luy xeetu meññant rek yàlla nee na ma saxalal leen ko ci kaw suuf ñu koy jariñoo waaye yooyu bu ko yàlla dee wax bu ko yàlla dee def ngir ki nga xam ne ni am nam xel di ko jëfandikoo man caa jànge xam ne ah yàlla mii rek a yàlla kon ci wàllu pas-pas wàllu ngëm alquran mooy rëdd fa gën ne jaar leen fii waaye bu ñëwoon tey ci wàllu jikko alquran moo ñuy wax nan lañuy ñuy jëflante ci sunu biir nan la ñu war a jëflante toujours yahdi lillati hiya aqwam fa alquran di rëdd ne dee leen jëflante nii anam googa mooy anam nga gën ci jëflante tàmbalee ko ci nit ki balaa balaa samp sax kër war wut soxna am njaboot nan lay yore njabootam nan lay jëflanteek moom nan lay jëflanteek ñi ko wër alquran balaa nit ki di takk soxna la koy wax kan nga war a takk kan nga war a takk kan nga war a takk kan nga war a takk tàmbalee ji wala tankixul musrikaati xataa yuminna wala tunkixul musrikina xataa fi war a bàyyi mu wax ñu wax mu wax ñu bàyyi leen leen fi koo xam ne ni bokku leen fu ngeen jëm yow ca yàlla nga jëm yor pas-pas bu sell bokku leen fu ngeen jëm ba ko fa lum la yéem yéem ci taar wala ci am-am na wala ci leneen ba ko fa keneen kee nga bokkal yoon wu ngeen jaar di dem kookaa gën a yey moo gën ci yow fuuf kon balaa ngay takk soxna la lay orienté kan nga war a takk nga takk soxna ba noppi mu wax la nooy dundee moom nag wa aashiruhunna bil maaruf wa aashiruhunna bil maaruf soxna yi ngeen yor alxuraan ñëw ne ah ñii ngeen yor nangeen di dund ak ñoom ci njekk na ngeen di séq ak ñoom mbaax seen diggante ak ñoom nay rafet toujours wala hunna mislu alladi alayhinna bil maaruf xam leen ne li ñu amee ay devoir noonu la ñu amee ay droit xam leen ne li ngeen di sàkku ci ñoom li ngeen di xaar ci ñoom ñoom itam moom la ñuy xaar ci yéen même bu fekkente ne yéena leen yilif wali rijaali alayhinna daraja loolu yàllaa ko def même bu fekkente ne yéen góor yéen la yàlla jox kilifteef waaye xam leen ne nag li ngeen di xaar ci ñoom jigéen ñi ñoom itam ñoom lañu loolu la ñuy xaar ci yéen ci jëflante bu rafet ci yor bu rafet ci bàyyi xel ci ki nga yor nit la kon alquran bu ñu ñëwee ci wàllu jëflante tàmbalee ko ca njaboot ga moo ñuy wax nan lañu war a ak ñoom même bu ñu demoon ba jafe-jafe am parce que mënta ñàkk léeg-léeg daf ñuy wax moo ñuy joxan allati yahdi lillati hiya aqwam moo ñuy wax fan moo gën a jekk ngir ñu jaar fa fan moo gën ngir ñu jaar fa yàlla nañu wallaati taxaafuuna nusuuzahunna fa'iduhunna fa'iduhunna bu ngeen demee ba jafe-jafe am jëfandikoo leen waare wax leen ak ñoom delloo leen ci yàlla wahjuruhunna fil madaaji wadribuhunna maanaam daf ñoo tegal barem boo xam ne nii ci lañ moom lañu war a topp ci bu ñuy jëflante ci jamono boo xam ne nii jamono yi rafetoo la waaye jamono boo xam ne nii jamono jamonoy jafe-jafe dafa am kon bàyyi lu ñu fan lañ war a jaar ci dund ak sunu diggante waaye ñi nga xam ne nii ñeneen lañ ñoo xam ne nii dañoo war a di dund ak ñoom alquran daf ñoo diggal jikko yi nga xam ne nii moom lañ war di jëflante ak ñoom yàlla nañu ñu wa awfu bil ahdi ida ahadtum saa bu ngeen séqateeg nit kóllëre goo xam daa dox seen diggante na ngeen fexe ba la koy yàq bu mu jóge ci yéen la koy yàq bu mu jóge ci yéen na mat sëkk wala tanqudu l aymaana baada tawkiidiha bu leen amanteeg nit kóllëre ba pare siñanteeg moom pacte ba pare ñëw trahir pacte booba ngeen siñante woon ak moom wala kóllëre goo koy doxoon seen diggante ak moom xam leen ne waqad jaaltumullaha aleykum kafila xam leen ne yàlla ngeen fa doxale de moo ngeen jël seede moo doon témoin bi ngeen di séq kóllëre googu kon na rafet kon na rafet kon ba ci suñu diggante yàlla daf ñuy wax nan lañuy ñuy jëflante bu ñu demoon sax ba ci di jëflante bor jaay ak jënd lépp yàlla daf ñoo wax nan la ñuy jaayee nan la ñuy jënde yan lañ war a moytandiku lépp yàlla daf ñu ko indil nan lañ ko war a nan lañ ci war a jëfandikoo ba ci bor yàlla dem ne bu ngeen dee séq bor nangeen ko bind de ndax nit moomul boppam dund cër la dee cër la nangeen ko bind mooy la gën nangeen ko wutal ay seede kon jëflante ci boppam yàlla daf ñu cee bàyyiwul noonu alquranul karim sunu digganteek moom ci jox kiñ ko war a jox suñu temps ci jàng ko ci di ko settantal ci jéem a xam li mu wax di ko jëfe yooyu la ñuy xaar ci ñun ci alquran jullit bi war nay laaj boppam bu xëyee suba ba ngoon tey téereb yàlla bii lan laa ko jox ci temps lan lu toll nan laa jàng ci alquran ba ma xëyee ak léegi lu toll nan laa jàng ci alquran ba ma xëyee ak léegi alquran hajirul quran moom musiba la maanaam gàddaay alquran abdullah ibnu abbas day wax ne ku jàngul alquran moom ku ko jàngul ba mu jeex ci weer gàddaay nga alquran weeru yàlla wàccee woo cib kaamil dana gàddaay nga alquran yow am na ñoo xam ne dañ daan jàng alquran ci bis jàng alquran ci genn guddi usmaan ibnu affan radiallahu anhu julli naafil la jàng alquran ci genn guddi fatiha ba minal jinnati wan ci genn guddi mu jullee ko kon ñooñu daan nañ jàng alquran de jëloon nañ seen temps jox ko al alquran waaye jéem a xam lu mu wax ndax ñi ngi jéem a xam lu mu wax kon jàng googu ku nekk na laaj boppam waaye jéem a xam lu mu wax ñàkk xam gi problème la waaye li ko gën a doon problème mooy defoo dara pour xam loolu moom musiba la moom jaadu woon na bis bu nekk nga jéem a xam lu bees ci alquran xam nga xëy na wax nañ fi yoo xam ne nii mën naa am. ki doon kenn ku doon déglu koo xam ne mu ngi fi koo xam ne xëy na lii tey la ko xam ci alquran waaw fexeel bu subaa nga def noonu xamal lu bees boo liggéey nga def noonu maanaam effort boobu ngay def di jéem a xam alquran jooju loolu faratala kon boo xamul del jéem a xam del def effort ngir xam ndax yu baree baree ngi ci sa wet yu la wër yoo xam ne lenn lu ci ne yaa ngi dañ kumpa portable yi ñu yor am na ñoo xam ne ni jànguñu a nii bee waaye li ci nekk yow mi jàng xamoo liñ ci xam yow mi jàng xamoo lan moo ko waral yitte yitte lañ ca def kon defal yitte ci leetar bii nga xam ne nii sa borom daf la ko bind yónnee la ko lim bëgg lépp mu wax la ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne fii xabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa xukmu ma baynakum la jiitu woon xabaar yi ña jiitu woon ñépp mi ngi ci alquran li war a ñëw lépp yoon borom bi subhaanahu wa taala wax na ko ci alquran li war a dox seen diggante lépp wax na ko ci alquran nga nar koo yor yor ko yor ko yor ko ba xëy wuy ji sa borom gis nga boo duggee ci bàmmeel yàlla danaan la waaw téere bi ma yónnee woon noo def ak moom yonent bi nee na dangay ngay gis koo xam ne dañ koy laaj mu naan ah, ah, ah la adri man ngay xaw ma xaw ma xaw ma ci dara loolu lu ko jar yàlla nañu ci yàlla musal kon nañu jéem a yeew suñu relation ak téere bii balaa baye wéy mbuus balaa bay di wéy mbuus nañu fexe dellowaat sunu bopp ci téere bi di ko jàng alxuraan dañ ko wàcce ngir ñu di ko jàng di ko jéem a xam xamuk di ko setantal nag kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun lu tax li yaddabbaru ayaatihi yàlla nee na téere bu barkeel la ma wàccee ko waaye dama ko wàccee ngir ñu koy settantal settantal gis nga del def bis bu nekk nga jël benn aaya rek boo xam ne day ta nga ne ubbi alquran ne aaya bii moom lu muy wax di ko jàng ko jàngaat di ko xoola ko xoolaat di bàyyi xel boo baree nga xool waaw man aaya bii nan laa def ak moom nan laa def ak aaya bii man bis bu ne nga am ci dara gis nga settantal alquran yonent bi sallallahu alayhi wa taxaw na ci benn aaya di ko jullee guddi gi yépp muy jullee benn aaya lu tax di settantal aaya boobu in tuadibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizu al hakim saa bu kàbbaree jàng fatiha jàng in tuadibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizu al hakim di ko répété di ko répété di ko répété ba war a sëgg sëgg rukon bu jugaatee delluwaat fa mu nekkoon lu tax loolu tadabbur la day settantal aaya boobu day settantal aaya boobu alqaasim ibnu muhammad ibnu abi bakrin siddiq radiallahu anhu dafa ne ñëw naa damaa ñëw ci sama tante aïcha radiallahu anha fekk ko mu julli yoor yoor ma xaar amoon soxla am lu ma ko bëgg laaj ma xaar xaar xaar sëlmalul parewul rukonwul sax mi fi mu taxaw rek mi ngi taxaw ma ne naa dem marché ba dox ay soxla bu ma ñëwee mu pare ma wax ko sama soxla ma dem marché ba dox li may dox ba ñëw fekk fa mu taxawoon ndeke ma ngi continuer taxaw rukonwul julli yoor yoor laa ma fexe ba dégg li muy wax ndekete mi ngi répété fa manna allahu alayna wa waqaana adaba samuum di jooy jooy yu metti di répété loolu loolu mooy tadabbur mooy settantal alquran settantal alquran di bàyyi xel waxiin wi di bàyyi xel li muy wax di bàyyi xel noo def ak moom yow am na qissa boo xam ne nii euh, euh, mu ngi tasaaroona bu yàgg ci ci ci réseaux sociaux yi mooy ki doon wax ne suñu imaam bii kat ndekete ab sàcc la jiiñ imaam sàcc jëkkër ji dafa dafa ni ko dama bëgg imaam ñu invité ko ndogu mu ne ko waa mën naa nekk jëkkër ji invité imaam ndogu mu ñëw ci kër gi ñu toog ci salon bi ndogook ñoom ñoom ba noppi imaam jiite leen timis ba kii ñu pare tàggatoo dem fekk bi ñu toogee ci taabal bi am na kayitu 10 000 woo xam ne ni ñu ngi ko tegoon noonu waaye biñ ñëwaatee gisuñu gisuñu kayitu 10 000 woowu. bi imaam demee soxna si ne borom kër bi ne ko ah sa imaam biir de sàcc la sàcc nañu de imaam sàcc nañu de suñu 10 000 imaam a ko sàcc parce que maa ngi yow moom dong nga fi nekk te 10 000 ba dem na kon imaam a ko sàcc. ci ji ne ah wax lu mu wax loo xam ne nii nangu cee sori ñu demaat ba koorug déwén jëkkër ji ne soxna si dama bëggoon invité imaam ndogu tey jabar ji ne ko ah mën naa nekk de waaye ci condition bu ñëwee nga laaj ko lu tax mu ñuy sàcc waaw bu dee loolu daal mën nga ko invité mu ñëw jëkkër ji ne ko mën naa nekk bu ñëwee dinaa ko laaj imaam ñëw ndogu si fiñ toog jëkkati ne ko imaam day am na lu ma la bëggoon a laaj nga baal ma mu ne ko lu mu doon mu ne ko imaam lu tax nga ñuy sàcc yow day daaw ci bis sàngam bi invité nañ la fii ndogu man ak yow ak sama soxna rek ñoo fi bokkoon nekk am na billet 10 000 bu ñu tegoon nii ci kaw taabal ji te ba nga demee gisuñu billet 10 000 booba te man jëluma ko sama soxna si jëlu ko imaam loolu nu mu mën a demee imaam ni ah loolu de dëgg la kon billet billet 10 bi gisu leen ko ma ne gisuñu ko kay imaam bi commencé jooye jooy jooy yu metti lool ba jaaxal leen ndax day jooy ne dañ koo jiiñ sàcc déedéet imaam li ko li ko metti mooy taabal ñu toog billet 10 bi nekk fi kaamilu alxuraan a ngi nii di tege bi mu gisee billet 10 bi dara tegewul ci kawam mu yëkkati fekk fekk yu ngay njëkk jot dugal ci billet 10 000 bi ub ko ne xam naa buñ bu ñuy def bu ñu ubbee kaamil bi dañ gis billet 10 000 bi pour mu bañ a naaw yéen ngi bàyyi xel li may wax imaam ne man ndekete kon yéen gisu leen 10 bi ñu ne ko déedéet mu ne ndekete yéen kon maanaam diggante daaw ba ren kaamil bii di tege fii ndeke kenn ci yéen ñaar ubbiwu ko ndeke kenn ci yéen ñaar ubbiwu ko ubbi kaamil bi ne leen billet dix mille baa ngi nii daaw lii moo taxoon ma dugal ko fi ngir ne comme kaamilu alxuraan la xam naa da ngeen di jàng alxuraan saabu bu ngeen ubbee da ngeen ko gis pour mu bañ a naaw ndeke daaw ba ren kaamil baa ngi nii tege la woyokat ba waxoon ne ka annani mushafun fi bayti zindiqi zalaltu xayraana amshi fi aziqatiha ka annani mushafun fi bayti zindiqi kaamil bi tege daaw ba ren kenn ubbiwu ko dañuy fomp rek tegaat ñun suñu kaamil yi ci suñu kër yi mbaa du loolu li oustaz Ahmad doon wax léegi fomp rek tegaat léeg-léeg sax dalay xatal parce que fi nga ko teg am na loo fi bëgg a teg léeg-léeg nga jël ay mbir teg ci kawam te alquranu yaalu wala yu'la alay dara du ko féete kaw yooyu ndax ndax ñi ngi koy bàyyi xel mbaa ñun ñëpp meluñ ne waa kër googu ndax xam nañ jàng alquran ci kër ni mu mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kër dana yaatu ci ña ko dëkke malaaka yi di fa wàcc si seytaane di daw kër googa aw yiw bari lool ca kër googa aw ay di fa néew lool su fekkee dañ fay jàng alquran inna albayta la yasaau ala ahlihi wa taxduruhu almalaikatu wa tahjuruhu alseytaanu wa yaksuru xayruhu wa taqi wa yaqillu sharruhu in kaana yuqra'u waaye dafa dafa àggale de yemul foofu nee na kër dana xat lool ci ña ko dëkkee lu mu yaatu yaatu malaaka yi di daw kër googa seytaane bëgg lool kër googa di wàcc si du fa jóg def dëkkukaayam aw ay bari lool ca kër googa yiw néew fa lool su fekkee duñ fa jàng alquran mbokk yi nañu xoolaat sunu diggante ak alquran sunu relation sunu diggante ak alquran ci di ko jàng ci di ko xam ci di ko setantal ci di ko jëfee nañ ko bàyyi xel yii buñ ko defee sunu diggante ak alquran rattax na bu sunu diggante ak alquran rattaxee sunu diggante sunu borom rattax yàlla nu yàlla defal tawfiq li nu bëggoon a wax lépp mu ne su ko wax ci benn jataay ci alquran ndax li ñuy wax moo toll noonu li ñu wax sax bari na waaye li ñuy wax ci moom moo toll noonu yàlla nu yàlla boole ci ñooñ alquran allahuma jaalna min ahli alquran alladina hum ahlullahi wa xaasatu allahuma jaalna min ahli alquran alladina hum ahlullahi wa xaasatu allahuma dakkirna bilqurani ma nussina wa allimna minhu ma jahilna allahuma arzuqna tilawatahu ana alleyli wa atrafa annahaari ala alwajhi alladi yurdika anna ya rabbal alamin allahuma jacal alquran alazima shafiana wajcalhu lana imaman wa nuuran wa huda allahuma ajcal alquran alazima xujjatan lana la xujjatan alayna allahuma ajcalna mimman yuqaalu lahu qra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunya allahuma ajcalna mimman yuxillu xalaala alqurani wa yuxarrimu xaraamah wa yacmalu bi muxkamihi wa yuminu bi mutasaabihihi wa yatluhu xaqa tilaawati allahuma ajcalna mimman yuqiimu xuruufahu wa xuduudah wala tajcalna mimman yuqiimu xuruufahu wa yudayicu xuduudah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf ñu ngi dellaat delluwaat di sant borom bi subhaanahu wa taala ci ndimbal ak tawfiq gim ñu defal yal na yàlla yokk sa xam-xam yàlla aar la sàmm la ci sàmm ni mu sàmmee alquranul karim euh, ni mu ko ni ñu ko waxee woon ci commencement bi euh, defe naa ne jarut ñu ci commentaire benn baat ndax li ñu jot a taataan àgg na ci xol yi waaye timit àgg na ci xel yi. xel nag mooy lumière bi niital nit ngir muy mën a jariñoo li muy li muy jël moo tax am xel akum xel akum ak xol day ñaar yu am solo ci nit ba yonent bi sallallahu waxoon ni am na lumb wu nekk ci doomu aadama boo xam ne su baaxee lépp bu baax waaye su bonee lépp bon muy xol xel mi mooy tax ñu togg nit ki jëf ba tax alquran di ñu wax boo commencé baqara jëm naa si su waxee ba daaneel rekk danne nag waxumaak dof yi waxumaak ak ñi dul xalaat ñi am xel tey xalaat lay waxal kon nag alhamdulillah yàlla na yàlla def ñu taatan ko cib xol ak xel ba mën koo jariñoo tënkal nañu ci waxtaan wi wax nañu lan mooy alquran defe naa ku jóge ci jataay bi tey suñ la laajoon ne ñu définiral ñu alquran soo déggee li oustaz Alioune Badara Cissé wax da nga mën a ñu defal définition bu mucc ayib ci alquranu karim lan mooy alquranu karim waxal nañu ci ngeneelul alquranu karim ku jóge ci jataay bi tey defe naa soo munta tari lépp tamit da mën a lim ñaar ba ñett ci ngeneeli alquranu karim euh, waxal nañu tamit naka la ñu dundee ak alquranul karim nan lañ ko war a dundee kon téere la boo xam ne e, ñaar ba ñett lañ séq ak moom bu njëkk bi mooy jàng ko ci niñ koy dundee jàng gi nag moo tax suñu boroom ba muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko iqra la tàmbuleek moom boroom xam-xam yi nee na iqra jooju mooy répété waat ëllëg yowmal xiiraam suñu boroom nañu iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yowma alayka xasiba e, téere boobu bu buñ ko jàngee pare dañ ko war a jëfee dañ ko war a jëfee mooy tax barke bi wàcc ci ñun jëfe gi nag lañ koy dimbale mooy li waxoon sànq ci suñu suñum xel te Oustaz Alioune wax ko ci aaya bi mooy ñuy settantal sunu boroom lan la bëgg a wax te bañ a nekk rek li alquran di wax mathaluhum ka mathalil ximaar yaxmilu asfaran di jàng rek di tari di dem te bañ a settantal ndax alquran sunu boromay wax nit lay waxal yow yaay nit déglu li suñu boroom wax lan la la wax ak lan la la sant lum tere ak lum la bàyyiloo ci biir nag am na lu mu boroxal lu baree baree bari waaye dama ciy jukki ñaar rek benn bi mu wax ni ñu fonk alxuraan waaye suñu amee njaboot su fekkee ne bëgg alxuraan ak màggal alxuraan ak fonk alxuraan dëgg la ci ñun nañu jël ca njaboot ya ñëpp jox ko alxuraan bu munta nekkit nañ jël ñenn ca njaboot ya jox leen alxuraan alxuraan nag boo ko joxee benn mu delloo la fukk wala mu delloo la téeméer wala mu delloo la junni alxuraan day wax ne wa man yuazim sha'airallaahi fa innaha min taqwal qulub képp ku màggal euh, li yàlla màggal rek euh, suñu boroom nee na loolu dafa bokk ci ragal yàlla boroom xam-xam yi nag ak seetlukat yi dañuy wax ne màggal lu yàlla màggal du yokk ci màggaayu loola dara màggal alxuraan yokkut ci màggaayu alxuraan dara waaye yow mi koy màggal yaa cay màgge loolu nag preuve biñ ci am mooy alxuraan fi mu jaar fépp ba agsi ci ñun comme jaar rek barke bi wàcc na ci yow su fekkente ne màggal nga ko soo ko doy dalee mbugalum alxuraan wala tëkkuy alxuraan wàcc na ci yow defe naa mag ñu baax ñi ñu am te tàmbulee ko ca saxaaba ya ak fii ci suñu réew mii mën nañ leen a tudd ñoom ñëpp fañ tegoon alxuraan waaye li leen alquran def nu ñu mel rek alquran moo leen ko def eh, nit nag du ndax boppam gëm alquran gëm mag ñu baax ñu alquran ñoo ñu defar ba pare nga jël sa njaboot teg ko ci yoon woo xam ne mag ñu baax ñoo ñu tegewuñ ci woon eh, bu ñu xooloo ci alxuraan Mariama alayhi salaam njabootam. daf avant muy juddu la ne da nësër ngir jox ko borom bi subhaanahu wa taala nadartu maa fi batni mu ah, muharraran ah fa taqabbal nii waaw du Mariama sax waay juru Mariama ba mu juddoo mu nekk jigéen mu daan ne ah damaa yaakaaroon ne góor la waaye nag gis nga li yàlla dogal kon li may wax foofu rek mooy njaboot yi ni ko Seyda Kumba waxe woon ci commencement bi oustaz Alioune Badara répété waat ko nañu xam ne. képp ko am njaboot am nga responsabilité bu rëy rëy ci bu fekkee ab julin nga ci teg ko ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla tracé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko kon nañu bàyyiwaat xel njaboot yi te bàyyiwaat xel mag ñi nga xam ne ñoom lañuy woote ne ñoom lañuy ñu wuyoo waaw ndax kat ñoom seen lépp alquranul karim lañ ko defoon jataay bi dafa gàtt mais Euh, dafa xat mais mënoon nañoo tudd kenn ku nekk la mu wax ci alxuraan commencé ko ca ñi ñu xam fii ci senegal muy ay mag ñu baax kon ñu ngi jégg lu baax a baax euh, arab yi dañuy wax ne leeral lu leer moom day lëndëmal la leeroon ba pare ñi ngi jéggul ci kàddu yi nga xam ne teg nañ ko ci kàddu Oustaz Alioune Badara Cissé ah jox kàddu gi Cheikh Ibrahima mu continuer jataay bi macha allah yal na yàlla fay yiw waxtaan bi am na solo xam naa ni ko oustaz ñaanee bi muy tàmbali yal na yàlla def tawfiq ba waxtaan bi ñu dégg ko yaakaar naa yàlla def na tawfiq ci jotaay bi parce que néew na jotaay yooy dem def conférence ba mu jeex te kenn waxul kenn noppil te loolu lépp moom mooy njëriñu waxtaan bi ak solo soloy waxtaan bi kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla gën ko dëgëral yàlla gën a barkeel xam-xamam Euh, li des ci conférence bi xam naa ne bëreetul ñuy fàttali aussi conférence bi mi ngi jàll en ci Koki TV waaw daara Koki TV mbokk maa ngi nii conférence dañ ko def en ñu sant leen ñoom tamit gërëm leen ci loolu ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla gën a barkeel chaîne bi yàlla gën ko dëgëral ba ñu leen dégg fi seen yu mag yëpp incha allahu taala xam naa daal ci waxtaanu oustaz bi balaa ñuy dem julli ci man benn aay alquran kese moo ñëw sama xel bi muy waxtaan yépp te yàlla da ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fastamsik billadi uxiya ilayk wa innahu la dikrun laka wa li qawmik waaye nag wa sawfa tusalu moom mooy tem waxtaan bi wa sawfa tusaluun kon ku nekk na jàpp ni saw fa tusal kayfa xayita ma alquran dan nga dundee woon ak alquran ñu bàyyi ci xel bu baax a baax comme waxtu julli bi dafa dafa dafa jege si te dañ bëgg julli soo koy continuer li des bëreetul insha allahu taala am na ay kàddu yoo xamante ni war na fi jib lu mel ne kàddu suñu présidente parents d'élèves ñu sant ko mu tamit bu baax a baax gërëm ko ci taxawaay bi su bis bi melee nii wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax a baax a baax moom ak ñi koy gungee ci liggéey bi yëpp di gërëm suñu yaay yu tedd yi association bi ñëpp ñëw nañu yàlla yàlla fay leen yiw yàlla barkeel ñu ko ñu eh, kon day bu ko defee kon dañuy jox kàddu gi rek présidente parent d'élève soxna Wulay Matu Seck su ko defee mu sànni ci ay kàddu bismillah soxna Wulay Matu صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم teew na si jotaay bi di jiital su nuyu musit sëriñ Massaye Mbacke maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu délégué quartier bii nga xamante ni macha allah. suñu délégué bi nga xamante ni yaram neexul mënul wante ab délégué Keita al foog mu ñett ñetti ñëw kon noonu noo ngi koy masaw baax di ko gërëm di ko sant si mbooye mi nga xamante ni daf si jóg di nuyu képp ku nga xamante ni yaa ngi nekk di jàngale fii si daara ji muy góor muy jigéen nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp nuy parents d'élèves yi nga xamante ni teew nañu fi yëpp bàyyiwuma kenn ak élèves yi nga xamante ni noo ngi fiy jànge di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla jubal di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla def nuy mag leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jàppale jàppale seen waajur yi nga xamante ni noonu leen fi indi ba nu am ndam si yéen conférencier bi macha allah ndax yow fi nga waxee rek la alxuraanu karim bi war na si taxawaat bu baax a baax a baax a baax a baax yow waxal nga ma genn wàll li ma waroon wax yëpp si mbirum alxuraan bi man nag sama kilifa bu fi xasee ba teew muy Adja Nafissatou Diop mi moom mooy présidente yaayu daara ndar yëpp te bu nee école bi daara donc Adja Nafisatou Diop bu ñëwee teef fi ànd ak soxna Aïcha Coulibaly dama si kontaan lool lool lool sagal na ma Adja Nafisatou Diop nga bàyyi xel al azar bu baax a baax a baax a baax ndax al azar daara la te si daara yi la bokk buñ ko tuddalee ni école la mais dama bëgg nu bàyyi xel ni al azar daara la te daara yi la bokk ndaxte jafe-jafe yi mi ngi fi tege xat-xat yi mi ngi fi tege conférencier bi wax na ko léegi nee na bu fekkonte ni parent d'élève bu ne man waxuma semaine de fin du mois bu nekk ku nekk wari 1000 francs rek bu ñu koy dajal bi macha allah xat-xat yi dana wàññeeku. wante xam naa jamono neexul nit ñi sax bëgg nañ def wante xam naa xat-xat yi moom moo koy indi wante nu wax góor-góorluwaat rek defaraat taxawaay wi ndaxte bu fekkente ne da nga def sa teraanga def sa yiw da nga siy góor-góorluwaat ndax nag ni daaw macha allah dama koy waxaat pour ñëpp parents d'élèves yi dégg parents d'élèves bi nga xamante ni sëriñ wax na ma ñëw ndax toujours bu ma ñëwee si daara ji damay laaj ci priorité ndax nit boo koy dimbali da koy laaj lan la soxla ma ni ko lan moo fi priorité mu ni ma photocopieuse dañu am problème am ñett ñett yi nañu ñett ñett ñett ñett ñett ba am téeméeri junni jënd si photocopieuse jox leen ko daaw ren nag macha allah mu ne am réaction bëreetul ndaxte bi ma ñëwee dafa ni ma kii nanga koy waxee te kii. classe bi terminal bi dafa am problème dafa daanu nekkoon si di ñett-ñetti woote naa fi réunion ay yoon yoon ubbi nañ fi groupe whatsapp ñu nekk si wax si waxaat si yàlla defoon ñu lijjanti ba président kay tamit lijjantu nañ nu ñaari sarsu ciment kii suuf mu ñëw am benn parent bu ñu woon dana joxe ñaari tonne ciment yàlla dogal na xam naa xëy na dafa dafa dafa jotagul wala indeegu ko am na tam leneen yoo xamante ni parents d'élèves bi dajal nañ ko fi waaye damay waxaat rek ñaaxaat parents d'élèves bi wax leen di leen doyul te du doy école bi am na jafe-jafe am na xat-xat même si jàngalekat yi xale yi ñu jàngal war nañ si jàpp yenn saa yi waxoon naa fi euh, kii ki doon joxe cadeau yi man leen di leen leen dimbal ndax dañuy soxla ay fookaay dañuy soxla ay cadeau dañuy soxla ay kii kon nag li may wax rek buumoon sama gudd mais dama bëgg ñaaxaat parents d'élèves yi ñu dimbali ñu jàpp si ñaar téeméer par bu ñu koy dajale presque ba at mi deewee lu mu bon bon daan am dara nu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax si daara ji góor góorgóorluwaat si alxuraan ji bis bu ne ma wax ko ñun ñi ñoo ngi nii Adja Nafisa Diop ni ak Aïcha Coulibaly mi taxawul suba suñu xëyee noo ngi si ko daara ak si conférence yi di wër rek daara ji na daf si bokk ndax ñi nga xamante ni ñoom ñëpp dañu àndaloo ñëw waax ba sama kër ni maman bu la yow leen bëgg nga ñëw nekk jiiteelu suñu daara ji dama koy rafetlu dama koy kontaan dafa rëy si ma donc bu doon sama bu doon sama sagoo daan am ndam si daara ji daan si taxaw kon nag diis naa ko ñu bépp bonne volonté bépp parent d'élève képp nga xamante ni mën nga wuti indi ak foo ko mën ci jële nga dimbali nit sa bililaar bi jàpp si daara ji ba nga xamante ni daan fi taxaw bu dee ñaari salle de classe sax wala nu taxaw si lii parent d'élève yi noo koy def wasalaam ngeen baal ma àq bu baax maa ngi jégalu si kàddu yi asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ba tey dafa am dafa am benn teraanga joo xam dafa xale bi doon jooy yaa bi doon jooy léegi yaayam moo fi indi keesu tànt ak mbuusu ndox joxe ka te wax dëgg yàlla bëggul woon sax ma bëggul woon sax ma wax ka ndax nu innama nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukuuran waaye nag ku def lu baax tamit ñu wax ka jàpp na nu si école bi papa a nga nee jóge ba Dakar ñëw ñoom ñëpp jël ñoo ngi dëkk ba xor waaye toujours ñoo ngi si daara ji jàpp si daf may téléphoné dama nemmeeku kontaan na si ma kon nag li nga si def yàlla na ko yàlla fulandil ak mbooloo mi ko lu jullit yëpp waa kay wasalaam lii mënu ko ajaan na fi ajaan auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, soxna Ouleye kàddu gi mënoon na ñàkk matale na li nu fi jot taar taar dégg ko ci alxuraan loolu la ñuy dund kon dañuy ñaan yàlla appel bii nga fi lancé dégg nañu ko mën naa jël engagement fii tey ni ndegam soom na yàlla su ma fi jógee bépp ndeyu daara boo xam ne aju na ci man dinaan taxaw sa kanam te incha allah lépp lu nu mën daanu ko jéem indi ko teg ka si sa loxo ndegam som na yàlla ñuy ndokkeel bu baax délégué Keita di nuyu bu baax conférencier bi waaye tamit di nuyu bu baax parents d'élèves yi euh, ulay parent d'élèves bi rek la ñuy waxalaat ndax lu fi baax rek parents yi jigéen ñi ñoo si war a jàpp ndax nag damay faral di wax toujours doom ju fi tekki rek teraanga ja si waajuram lay jëkke kon dañuy ñaan yàlla sunu doom yi nga xam ne doomu jullit lañu seen waajur yi nanu góor góorluwaat ndax bés bu nekk nag nu ñàkk si ay gólle puude loo xam ni waroon nañ ko mën dugal nag si biir daara yi loolu nag ñun dégg nañu ko incha allah daan si taxaw te daanu ñëw si yow ndegam som na yàlla allahuma salli ala sayyidina muhammad ñu julli rek suñu ñëwaatee àggale kii bi Seydou Moudir parce que <laughs> jotaay mi kii ndax ñu bëri ñoo ngi dem julli ñu julli ñëwaat rek du yàgg ah. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama bismillahi rrahmani rrahim ya ayyuha nnasu ttaquu rabbakum inna zalzalata ssaati shay'un azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق dhalika bima qaddamat yadaaka wa anna allaha laysa bizallaamin lil abiid wa mina nnaasi man yacbudu allaha ala harfin fa in asaabahu xayrun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ۖ wa kathiirun haqqa alayhi al-'adhaab wa man yuhini llaahu famaa lahu min mukrim inna llaaha yaf'alu maa yashaa' haadhaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم kadhalika sakharaha lakum litukabbiru allaha ala ma hadakum wa bashiril muhsinin inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره inna allaha la qawiyyun aziz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور wa in yukaddibuuka faqad kaddabat qablahum qawmu nuuhin wa aadun wa thamuud wa qawmu ibraahiima wa qawmu luut wa ashaabu madyan wa kuddiba muusaa فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في jaa ngi noonu seen daara la lu ngeen ci mën ci taxawaay rek incha allah ngeen taxawoo ko daara ji xam naa dañuy jox njiital daara ji muy directeur Mame Sayene Mbacké su ko defee mu joxe kàddu yu mujj yi tëj jataay bi ñaanal ñu waaye xam naa mudir balaa ngay jël kàddu gi rek euh, waaw balaa mudir yi jël kàddu gi ñu jox délégué délégué ñëwoon na fi su ba léegi mi ngi fi aussi autorité la bu ko defee mu sànni ci kàddu yu gàtt rek balaa ñuy jox mudir bisimilah bisimilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamualeykum wa taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi parents yi élèves yi jàngalekat yi ñu ngi leen di wax assalaamu wa rahmatullahi taala wa yàlla nag mooy dogal mooy def lu ko neex def ma njiitu gox bi mais ma ci santaat sama boroom lu bare bare bare bare parce que boo dëkkee ci gox am fa ay nit ñu waxam ne yi ni ko Alioune Badara Cissé doon waxee léegi ci conférence bi ne sang bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni xayrukum man ta'allama al wa 'allama kon te ñooñu bëre ci sama gox kon damay sant yàlla ku xam lew na xam ne daanaka dëkku daara la premier imam bii doon jiite jumaa ji tey mu sëriñ Ahmed Jaxate si ñu jëkk a sanc daara fii ci gox bi ci la bokk les années 53 54 ci ay taalibe bi jëkk man ci laa bokkoon yàlla na xippee ji àjjana firdaws wax na léegi ci biir conférence bi ma koy déglu mu ne boo amee say njaboot séddal ñu ci école bi ma séddal au moins kenn ca daara ja mais ci fan yu néew yi ma dund rek man ba ma juddoo ak léegi mosuma gis ku jàng alxuraan di jàngale alxuraan di jëfe la alxuraan di wax dee ci ndóol man mosuma gis boo tàmbali woon nga ndóol ubbi daara alxuraan di jàngale alxuraan di jëfeli alxuraan wax fala budda sa famille kanam jëm rek sëriñ Ahmed Jaxate bii nuy wax nii naam mbàkke mbàkke la mais tey mi ngi nii indi nañu xaadimu rasul fii ci Léona muy sëñ Amidou li tax ma ne indi nañu xaadim yéen ñëpp xam ngeen kan mooy euh, Cheikh Amidou Mbacke kan mooy waajuram bu góor sëñ Mourtada sëñ Mourtada ko jur sëñ Touba donc sët direct la te alxuraan a ko waral mbooleem ulema yi nga xam ne ñoo sampoon daara fii ci ndar booba man xaajuma juddu tey dem nañu ñoom Moussine nag ñoom euh, sëñ Mamour Ndiaye ak mais ba léegi daara yaa ngi fa et kanam jëm doo gis seen njaboot ba yërëm leen. mu am nag lu am solo lu nga xam ne conférencier bi wax na ko ma retenir ko bu ko dugalaat non seulement ci bopp parents d'élèves yi mais képp ku fi wuy si tey jullit rek nga bàyyi ko xel numéro 20 boobu ñuy wax nañ ko siiwal ba la ñuy jóge ci conférence bi képp ku ko ci mën képp ku ko ci mën laa wax ak boo ko mënul fexeel ba weer bu nekk nga dugal fa 1000 francs incha allahu déwén bu ñu tasee fii ci conférence bi daa ne daa ngeen ne ma délégué yaa bari xam-xam parce que daa gis yokkute ci yow daa gis yokkute sa njaboot parce que képp kuy jàppale arxuraan comme ni ñi koy jëfe di ko jàngale doo mën a bokk ci ñi jël ndadd kanam jëm rek ñaar yàlla faylu ko jaxran ngay gis wala mu faylu ko jaxran sa ay njaboot ngay gis kon veille boobu ngeen di wax créer leen benn compte veille bu nga xam ne bii képp kuy jullit boo ko mënee chaque fin dugal fa benn 1000 francs gis nga Adja Nafé ngi ci mbooloo mi Alioune bii doon def conférence bi léegi dafa am lu ma jëfe daanaka moom la wax muy moo tax ma si insisté muy compte boobu kenn ku nekk bu doon par weer def fa 1000 francs plan dafa ñëw jox ñu liggéey pour ñuy suqali xale yi lompoñ yi mais joxuñu ñu xaalis juróom fukki nit dong laa copte ci lew na kenn ku nekk weeru ne nga jox ma téeméer laajo ajaar na fi budget deux cent quarante cinq mille francs la ñuy déparé ñun suñu ñi ndegam cinquante personnes ñoo mën def loolu si y avait trois cent quatre cent personnes bu doon souscrire kenn ku nekk mille francs ëllëg si biir nag wax ma la ñu fay la fii mais boo demee àllaaxira itam ñu fay la ko man daal sama accès foofu la nekk góor góor leen ci vert boobu mu wax ne daañ ko créer kenn ku nekk di fa tàbbal mille francs par mois ku ko mënul boo mënee cinq cent nga dugal fa incha allah duñu ko rëccu dellu di gërëm directeur établissement bi et tout le personnel bi nga xam ne pédagogique ñi nga xam ne ñu ngi fi et di beral nag ngërëm ak cant te it di sàkku ci directeur bu ñuy tëj jotaay bi lépp lu ñu mën ci ñaanu xaas nañ ko defal Adja Ouleye Seck parce que judit la doomi judit la mais li ko yàlla may bëri na góor ñu ko yàlla mayul bàyyi sa it yépp di waaxu di dem pour wuti ndimbal pour di ko indi ci daara ji man mii ànd naa ak moom dem def porte à porte ci kër euh, comment dirais-je euh, euh, cabinu comment il s'appelle pharmacie yeeg fu nekk ànd nañ kon ku jara ñaanal yàlla la yàlla na yàlla guddal fanam en tout cas maa ngi lay bëggee bu wax uley et que tey def nga act bu ma neex xam nga lu tax xalaatoo koon bu yàgg mais Adja Nafi Diop bii mu ko wax incha allah dans six mois ndegam dana fa àgg bu consulter daara yi ci ndar euh, ndeyu daara yi ci ndar da ngeen xam ne na fi moom it ku jar ñaanal yàlla gudd fan ak wér ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ñuy séntu ci école bi ci élèves yi taalibe yi ak jàngalekat yi yàlla na yàlla defal leen tawféex te yàlla wan ñu lu sut suñu njor suñu koor gi di waaj a jeex itam yàlla na yóbbu suñu teef yëpp ak suñuy bakkaar yëpp ak suñuy toof toof te buy dem yàlla na nañu fi bàyyi ba bu déwénee bu ñëwee fekkaat ñu fi te yàlla nangul na suñu jaam yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf yàlla yàlla fay yiw yàlla yàggal la ci quartier bi yàlla yàggal sa njiit yàlla defal la ay ndam yu kawe sa njort ñu sant ko bu baax gërëm ko di wax ni tamit docteur Massoud si ñëw na léegi ci conférence ñu sant ko bu baax gërëm ko kon léegi xam naa dañuy jox directeur kàddu gu mujj gi su ko defee mu waxtaan ak parent parents d'élèves yeeg élèves yeeg jàngalekat yi mais balaa muy jël kàddu association parents d'élèves ci njiital Adja Ouleymatu Seck ci suñu conférencier bi macha allah Oustaz Alioune Badara xëy na amuñu luñ ko jox lu ëpp alquranul karim moo tax ñu jëloon kaamil bi bëggoon nga joxoon ñu ko Oustaz Alioune Badara ci turu parents d'élèves yëpp. ok jërëjëf incha allah ñu nuyu tamit suñu papa Makhtar Faye moom tamit ñëpp xam ko ci daara ji wax dëgg yàlla taxawaayam bi daara ji sosoo ba léegi fu daara ji wootee ñëw na taxaw bàyyi yitteem yëpp yàlla yàlla dëgëral ko moom tamit yàlla jàppale ko baax a baax bisimilah sëñ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 Euh, weer weeru koor di jataayu xam-xam waaye di njëlbeenoo nuyoo gi ñi nga xam ne ñoo amee woon waxtaan wi muy sëriñ Alioune Badara Cissé mi nga xam ne moo fi doon joxe waxtaan wu am solo ak tamit sëriñ Alioune sëriñ sëriñ sëriñ Abdul Xaadir Mbay moom itamit doon waxtaan ci wàllu jikko mu mel ne ñaari thème la yoo xam ne mën naa ne ndab la ak la mu def ndax ku ne xam na ne alquran jikko yépp yu tedd yi mi ngi ci alquran kon su fekkee ne dañuy gis ne képp ku ku ñuy tàgg sax dañ naan xuluqul quran sayyidatuna Aïcha dañuy wax ne xuluqul quran kon alquran képp ku ko jikkoo rek jikko yu gën a rafet yaa ngi nga ko amee mu mel ni kon waxtaan wi gannaaw bu ñu nuyoo mbooloo mi fi nekk ba noppi kàddu yi kàddu yi cant lay doon ak kàddu yi ngërëm ci li nga xam ne moo fi jot am dañuy njëkkee nuyoo nag ci ki nga xam ne mooy jiite parents d'élèves yi ndax parents d'élèves yi ñoo ñoom lañu ñu war a njëkk a nuyu waaye kon ci seen njiit ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxol parents d'élèves yépp yi nga xam ne ñoom ñoo am kóolute yi indi seen doom ci daara ji ndax ku ne xam na ne daara yi bari na waaye fii ba mu sosoo ba léegi yaakaar naa bari na fi ñoo xam ne amuñu fi benn kenn waaye ay eh, am na fi ay génération yoo xam ne yu bari yoo xam ne kuñ fi indi bu amaatee ay at ñu indi fi ñeneen kon loolu da ngay xam ne kon kóolute mënu ko weesu waaye nag yaakaar naa kóolute googu bu fekkee ne fiñ ko indi seen layitaay mooy alquran loola damay gis ne yaakaar naa fañu juumuñu ca tànn ba ndax alquran moom mooy lépp mooy liñ fi doon waxtaane ginnaaw ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk ñàkk nga lépp kon yaakaar naa seenu tànn juumuñu ca kon ñoom ñu ngi leen di beral nuyoo di leen ñaanal yàlla sunu boroom def ci ndaw yi ñu yabal ci ñun euh, ngir ñu def ci ñoom alquran def ci ñoom xam-xam def ci ñoom diine euh, yaakaar bañ ci tas ndax wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne sax day fekk ñu jël seen seen njaboot yóbbu ko foo xam ne dañuy dem ba xaw a am ñàkk ci yaakaar indi ko loola muy loo xam ne moo tax may wax ne sax daara ji du fi dàq nit ngir xam naa ne mission bi ñu am maanaam mooy fexe defar kon kiy defar wërta fekk ku yaakaar ne dafa yàqu ñu di ñu di ko génne déedéet loolu moom ca eh, mi ngi ko ñu ngi ko baaxoo tam ci sëriñ bi sëriñ sëriñ Murtada ñi daan àndal leen xamoon xam ne daanaka danga naan ñii moom yow ci sa bopp xalaatoo sax ànd ak ñoom ngir Euh, xeetu ñu wërigu ñu amee waaye lépp da ngay gis ne ba mu fi jógee sax ñooñu ñoo bokk nañ ci tànnee yi ngir xëy na taxoo gi ñu taxoo nag moom di dégg ay waxam di gis ay jëfam loola jeexeetal na ci ñoom ba nga xam ne bañ fi jógee noonu naka noonu tam ci daara ji noonu la mel képp koo xam ne ñëw nga fi noo mën a mel mën ngaa yoru melokaan de waaye boo fi jógee rek da ko xam kon loolu tam ñu bàyyi ko xel xam ne alxuraan moo bindoo noonu nit yi alxuraan tam bindoo noonu. di nuyu euh, euh, délégué de quartier muy sëñ Kayta moom it ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla daara ji amal na ko njukkal ndax lépp loo xam ne mi nga fii am euh, kenn du ko fi jiitu gis nga kàddu yi mu fi wax nga xam ne moom dafa daal di ne moom nañ ko tàmbali kon mu mel ne numéro vert boobu muy wax sax dañoo bëgg ba dañu fee jóge sax ñu fexe ba déggal ko mbooloo mi 76 448 35 27 xam naa danañ ko gën a répété pour képp koo xam ne jóge nga fi nga man ko yóbbaale boo gisee koo xam ne am na taxawaay ci am na euh, am na am na mébét ci jàppale daara ji mu man cee tàbbal li nga xam ne mooy kii ndax kat daara ji bokk bokk na ci liggéey lislaam boo xam ne boroom daana wax naan képp ku ci jàpp ah, képp ku ci jàpp ëllëg dana la seere ci kanamu suñu borom hmm? mooy euh, numéro bi 76 488 35 27 76 488 35 27 kon wéef lay doon ku ci am loo ci kii ra nga dugal ko ci bu ko defee loolu ginnaaw loolu tamit ñu nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki ustaas yi fi teew ñoom ñëpp di sëñ ñi nga xam ne ñoo doon taxawee surtout liggéey bi muy sëñ Ibrahima Fall ak sëñ Ibrahima Ba ak euh, sëñ Aliou Ndiaye ñoom ak sëñ euh, Oustaz Masson docteur Masson ak sëñ euh, doyen Sow doyen Diop laa koy wax xaw ma sax ndax dafa mel ne dafa jaay sant wi sant soxna sant soxna sa daal léegi la sant man xaw ma loolu moom ah. <laughs> ak sëñ Amath Diop moom itam wax dëgg yàlla sëñ Ba sëñ Ousmane Ba mooy mooy monsieur anglais moom itam ñu ngi koy nuyu ak sëñ Abdoulaye Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di ko di ko masawu ci ci ci ci coono yi. kon di sant Seyda Ndeela ak soxna euh, soxna kamara moom itam ak soxna Khadiba ñoom ñëpp ku ma limul na nga xam ne fàttewuma la day xëy na juum mooy am njuumte. kon mooy ginnaaw loolu nag ñu xam ne li nga xamante ni moo nekkoon waxtaan ak sëñ Maxtaar euh, Fay mii nga xam ne moom dama koy beral nuyoo ndax moom yaakaar naa képp koo xam ne xam nga daara ji rek soo soo ko soo fi ñëwee gis xam ko ndax yaakaar naa daara ji bu melee nii ci wàllu tabax ci wàllu wu baree bari bokk na ci loxoom mi ngi ci ngir di ci dox ak di ci wax mi ngi ko tàmbalee woon jëppi ba fi Serigne Lamine nekkee nga xam ne moo yore woon daara ji ànd kook moom moom itamit euh, dem nañ ba yaakaar ne sax ab oustaz la euh, te ku ne xam ne ne profu euh, prof science prof kii la physique chimique waaye boo ko gisee doo ko xam ci moom ngir bëgg gu mu bëgg nitu alxuraan bëgg gu mu bëgg daara ji moom it ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant mbooleem élèves yi nag ñi nga xam ne tamit ñoo ñëw dëgg la élèves yi bari nañ waaye ñi nga xam ne ñoo sacrifié wu ñëw ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax di leen sant di leen gërëm xam na lii mooy xam-xam tamit fépp foo ko dégg ndax yaakaar naa ñu fi taataan tey am na solo lool ñun ñi di jàngalekat sax jariñu nañ ci lool loo xam ne wax dëgg yàlla ah man de bi ma julli tisbaar léegi rek maanaam dégg naa fi loo xam ne jëfandinoo jëf jëfandikoo naa ko kon xam nga ne njariñ la kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy njariñal xam-xam lépp loo xam ne euh, yë yëg nga ko dégg nga ko rek nga fas yéene ko jëfee kon ñi ngi ci ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi di sant mbooleem soxna yi nga xam ne muy soxna Nafi ak soxna Wuli Seck mi nga xam ne moo jiite moom laa jox nuyoo bi mu joxal ma ko parent d'élève waaye soxna Nafi Diop mi tamit jëloon kàddu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm moom itamit wax dëgg yàlla dégg nañ taxawaayam lool ci wàllu daara taxawaay bu mu am kon nag mu xam ne fii tamit barabam la ñi ngi ko ci ñi ngi koy euh, dalal xam ne fii tamit ci bokk na ci li nga xam ne liggéeyukaay yi mu war a dugal loxoom kon loolu mooy li nga xam ne moom moom la ñu den di njëkkee waaye nag di am mbégte lool ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ fi doon waxtaane ndax dañoo waxtaane loo xam ne mooy alquran te comme niñ ko waxee rek alquran dafa jëm jóge ci ki nga xam ne mooy mbindeefal mooy mooy borom mbindeef yi mooy do yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi moom la jóge ci moom kon dafa mel ne lu jóge ci moom ki nga xam ne moom luy yiw moo ko bind luy yiw moo ko amal kon kooku ay waxam yaakaar naa mooy ngën jiw li gën ci ay wax bokk na mooy waxi sunu boroom rawatina nag mu mel ne kon wax jooju dafa doon loo xam ne comme niñ ko waxee rek lépp lu mu takkool wala lépp lu ko sunu borom booleel da ngay gis ne loola ngëneel da cay am ndax dem na ba nga xam ne malaaka mi mu yabal muy Seyduna Jibril mi ko indi sax bokk na ci mooy ngën ji malaaka guddi giñ ko wàcce mooy ngën ji guddi weer wiñ ko wàcce mooy ngën ji weer xeet wiñ ko wàcce mooy ngën ji xeet kon ki koy jàngale mooy ngën ji nit kon dafa mel ne métier mi gën ci métier yi mooy métier mu jàngale alquran kon lépp lu mu taxool rek ngëneel loola day daal di ñëw ngëneel ga day daal di ñëw ki gën ci yonent ki gën ci yonent yi itam ci moom lañ ko wàcc xoolal loolu loola rek misaal la ci kon ngëneel li maanaam fu mu dem wala ku ko taxoo ku taxoo moom am nga ngëneel lool kon ni ko sëñ Kayta waxee rek kenn koo xam ne gis nañ ko mu yëngu ci alquran nga di ko nga di ko ñi mu di la ñee wala boog nga di ko yërëm loolu amul loolu mu mus am waaw mën nga tàmbali ay nattu di am ndax jafe-jafe di ci am booba suñu borom a nattu rek ba xam lii nga nekk dëggu la boo ca dëggoo rek dangay gis ne da ngay daal di gis bunt yoo xam ne sax dalay lay da lay jaaxal te loola nit ñi ci boppam la suñu borom di tàggal seeni xol ñu ñëw def ci te mënuñ ci dara kon loolu ñu xam ne kon thème bi nga xam ne moom lañu ñu waxtaane waxtaane ko ci barab biñ ko war a waxtaane waaye tam waxtaane ko ci waxtu wi ñu ko war a waxtaane muy waxtu al waxtu koor kon yaakaar naa njariñ liñ ci war a jariñoo ndax ñi koy waxtaane tam yaakaar naa bokk na ci ñi gën ñiy gën ni ko ni ko sëñ euh, Alioune Badara waxe mooy ñi fi teew nit yu alquran lañ kon ñoom bu ñuy wax ak ñoom ñu taataan loolu ragal naa njariñ rek moo fi jóge kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balu àq di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yu baree bari te lépp loo xam ne euh, ñaan nañ ko fi wax nañ ko fi ci ay ci ay ci lu baax wala jaamoon yàlla ci biir weer wi yàlla nañ ko suñu borom fulal may ñu yërmande ak euh, euh, goreelu ci sawara ci weer wi yàlla nañu ko yàlla defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum maa ngi jégalu ci jëlaat kàddu gi. di sant yàlla di sant bu baax eh, mbokk yi ak teraanga ju rëy ji nga xam ne teraanga mënu koo féete kaw wax dëgg yàlla jàpp naa ne xëy na mënoon naa jëm ci keneen ku ma féete kaw waaye jàpp ma woon ne lu mel nii moom mm, yelloo naa ko ndax nit mënu maa jox lu ma gënal lii nit mënu maa jox lu ëpp lii yàlla na yàlla fay leen yiw yal na yàlla boole ñu ak yéen boole ñu ci ñooñ alquran yàlla na yàlla teral leen terale leen alquran li ci des mooy liñ doon wax sànq ci numéro boobu liñ junjoon ci suñu njëlbeenu waxtaan ci ne barab bii ak bu mel ne moom ñun ñi ko moom ñoo ko mën a yoral suñu bopp gis nga bu ñuy xaar bu ñuy xaar keneen jóge ci àll ba ñëw dinu dimbale duñ dem li ñu tardeel lool ci la bokk majjaan dañ koo tàmm majjaan mooy mooy mooy gratuité te ah, dañuy wax ne al majjaan lil majaaniin al majjaan lil nit dangay dem ba fa nga mën a yem gis nga yàlla ci boppam sax féeg li nga man defoo ko dalay seetaan boo defee li nga man rek nag mu àggaleel la da def li nga man li ñu wax sànq fii dama ne élève bu nekk jëlale naa parents d'élèves yi jëlale naa sympathisants yi jël élève bu ne man na semaine bu nekk mu wéef ci numéro bii cent franc loolu ban élève moo ko mënul ku ko mënul wàcc na la waaye ku ko mën ku nekk gàll loolu loolu semaine bu nekk cent franc fii ñu toog na ku nekk tàmbali man de numéro bi léegi lañ ma ko jox def naa ci vingt mille léegi kenn ku nekk nag na fexee def def dara li tax ma koy wax nag li tax ma koy wax mooy in tubdu sadaqaati fan ni'immaa yi léeg-léeg li ngeen di def mu feeñ ba nit mën caa roy yàlla nee na lu am solo la bu dul woon loolu duñ ko wax waaye dañoo bëgg ku nekk yëngu numéro bi oustaz nañ ko jëlal marqueur nga bind ko ci feuille bu mag nga taf ko fii ñëpp di ko gis kuy dem enregistré ko yóbbaale ko numéro bi école bi moo ko moom léegi jël nañ ko ci ki ko moomoon école bi moo ko moom léegi 488 35 27 ku nekk na ko enregistré am lu mu ci yónnee fii ñu toog jataay bi kuy def ku nekk yàlla nga koy defal wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu gis nga li kii doon wax léegi sëñ Kayta mi li mu doon wax du ay waxi nit de wax alquran la yàlla nee na lu ngeen lu ngeen dépensé yàllaa koy wuutal te yàlla lu muy wuutal mooy gën lam fa tegoon sax ma nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha aw misliha benn borom xam-xam day wax ne aw misliha gi sax zaayit la waaye yàlla lu mu fa jëlee la muy indi bi xayrin minha rek lay doon lu gën lum loo ko jox lam lay jox a koy gën kon kenn ku nekk loolu na ko def aw sasam semaine bu nekk danaa yónnee nangam ci numéro bii wala weer wu nekk danaa yónnee nangam ci numéro bii te nag nga xam ne sa diggante ak sa borom la nga respecté loola di ko def wallaahi balaa déwén danañ yëg ne lii yeex nañ ko def na ko ku nekk def yëfi boppam lu ñu ci fekk ñu jël waaye buñ ci fekkul ñu xam ne dem nañoo ak suñu bopp école bii ku ne xam ne waroon naa weesu nii mu mel. école yi ñuy jànge ñu doon ay étage jànguñu fa lu toll ne li ñuy jàng fii li ñuy jàng fii moo ko gën fuuf li ñuy jàng fii moo ko gën fuuf parce que qaala allahu qaala rasuluhu la ñuy jàng fii kon école yi ñuy tabax ba mu ba mu doon ay étage ñu jàng ABC yu ñàkk fayda yu ñàkk xoram ay Lénine Lénine ak Karl Marx yu kenn xamul dara yooyu li ñuy jàng fii moo yelloo woon ñu tabaxal ko ay château buñ ko xaar ci kenn nag parce que yàlla barabam du nangu alal ju nekk di fa dugg alal ju sellul yàlla du ko jël yonent bi daf nañu inna allaha tayyibun laa yàq yaqbalu illa tayyiba yàlla dafa teey te sell du nangu lu teeyul sellut kon alal ju sell dong moo mën a dugg fii kon ku ci dugal sa alal bay boo nga xam ne alal ju yàlla soxla la booy waaj nag di mépp di xàcc dañ ne maye ak xeex loo ci tàgg say bokk ñu teral maye ak xeex bul tàggoo danga boo ko waajee doo ko def boo kon defal li ngay def te yàlla tax bul waaj bul naw li ngay def itam loo ci def xeeb ko te xam ne li la yàlla ji jox moo ko ëpp salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin comme que ndigal la moom mënuñu ko delloo dañuy yëkkati ay kàddu cant rek ak kàddu dog ngant ndax dañoo yéex ñëw li si Charles de Gaulle tey jii lañ doon def ñaan dañu am ay collègues yu wàññeeku docteur Malick Diop ci la bokk mu nekk sama collègue daaw la wàcc wàcc liggéey ñu koy wàccee kaamil ren ñu conférence à midi la ñu tàmbali te man professeur arabe la foofu man rek maa fa teewoon au nom des profs ndax suñu collègue Atiq omra suñu beneen collègue Fall oustaz dafa absenté moo tax teew ma mi fi waroon teew léegi lañu pare loolu moo tax ma yéex a ñëw waaye xam nañ ni oustaz Alioune Badara matee na ko te njàngaleem dañ ci jëriñoo ñu koy ñaanal suñu borom mu gën dëgëral taxawaayam man kàddu cant laa yëkkati damay sant bu baax soxna Oulimatu sekk tey laa ko ma a gis danga koy dégg rek ndax taxawaayam ci école bi xam ngeen photocopieuse reprographie ku ko fàggul école kooku am na yéene kon soxna Nafisatu ndey daara man bu may wax ci Al Azhar toujours je parle de résultat Al bi ngeen gis nii mooy benn école boo xam ne day formé préscolaire ba bakk ci région de fii ba fii ba gannaaw Matam benn la di forme ay citoyens sénégalais démb am na ko seet si mudir ci ci bureau bii docteur la fii la jaar mooy premier élève bu am doctorat ci Al fii la génne am bac en 2009 Maroc la amee doctorat am Mouhamadou Bamba Dramé ñoo la seet si mudir démb ñi am master ci Sénégal jaar fii kenn xam nu mu toll ñoo xam ñu ngi liggéeyal askan bi di yar penc bi fekk yar nañ leen ci diine comme ni ko wax ak alquran kon képp ku ci liggéeyal ni mu ko waxee rek yaa ngi liggéeyal lislaam moo tax man ba ma am ñeewante ci soxna Oulimata Seck bu ma déggee li muy def man nga wax léegi dëggool man kuy def lu baax dama lay ñaanal yàlla rek kon soxna na Nafisatu bu ngeen di liggéeyal daara xam ne daara bi nga xam ne mooy gàttandoo ñi génn ci daara yi fii la daara ndar yëpp ñi fi génn léeg-léeg bëgg yokk seen xam-xam jàng ba mën arab ak xam-xamu diine ak fiq ak hadis ak xam-xam yi ci aju ba mën taxaw diine ci taxaw penc mi fii la leen di formé li ci gën a bëri kon ku jàpp ci daara ji jàpp nga ci lislaam ñu ngi lay ndokkeel soxna Oulimata Seck di xamal ni professeur yi nekk Al Azhar gis nañ sa taxawaay nekkul lu yomb yàgg naa dégg président parents d'élèves yi fi jaar ça fait 15 ans maa ngi fi waaye sa taxawaay rafet na yàlla yàlla sàmm yéene bi nga am gëm naa ni demal rek wax naa ko ba tàyyi Aliou Ndiaye barki démb Al Azhar sëñ Moustapha dafa wax Moustapha Fall mu ngi Genève da ko ziyaare ji woon Dakar Touba mu ni ko ndar laa jóge mu ni ko ah dama bëgg mun ma waaw waaw boo demee ndar sax am nañ fa benn bërëb buy liggéey lislaam bu ngeen demee ngeen jàpp ci ngir yàlla ak yonent bi mu ne ko Moussa Fall nga waxu ba lan la daf la wax lisaanu xaal la waxee bërëb bi lislaam lay liggéeyal ku fi jaar yàlla teral la docteur Malick Diop mu sëñ Mor Diop yàlla na ko yàlla yërëm moo génn àdduna daaw ma ko wax ne ma oustaz Al moo ma formé ba ba ma nekk docteur tey jii di jàngale bi ñu ma affecté bi ñu naan dama laajte fan la Al Azhar am ma fay di jàngale bu mu ñëwee ndar tamit fii la njëkk jàngale balaa état di ko jël affecté kon daara ji lislaam lay liggéeyal ñi ko xam nag nekk ci ñu ngi ci ñi ciy jiim yàlla ma leen di fay soxna Nafisatu ñu la koy dénk maxtaar fay dama lay yónni ci sëñ dut baay nga ni ko oustaz si nee ci conférence bi moom ak Aline Aba Talib xam naa ay wóolari si Mourtala lañu maxtaar fay laa ko wax et ça c'est solennel moom moo ñu tabaxaloon awal sanawi bi ku am yéeni ci daara ji la moom it sëñ dut baay ak ñoom Aba Talib leen di woowaat ci turu professeurs yi am naa sañ-sañ boobu nga leen c'est solennel na ñëw jàpp ci daara ji soxna maam jaara moom du nga ko bàyyi comme que fekk tey Oulimata Seck soxna si lu mu li jënti mën nañu tabaxal classe yi man xam naa ci dara te ku bëgg élève leen élèves yii waaw soxna maam jaara mii mu diir te mu ngi dëkk ci penku penku penku daara ji lu mu mënti li jënti bu ci defee yéene rek te nag sa njëriñ moo ci nekk boo ñëwee jege soxna Woulimata Seck mi daa am loo ñu defal ci daara ji kon ñoo koy sas ak keneen ku ngeen xam ku am yéene ci daara ji na ci def na tàmbali ci ñun nag comme ni ko oustaz waxee léegi numéro bii ñu tasaare rek ñëpp jàpp ci gëm naa ni daara ji ci kan lay dem teraanga dina ko am incha allah loolu moom gëm naa ndax liggéeyu ki ki ko sanc la te lu baax lay liggéeyal penc mi lay liggéeyal gox bi di gërëm bu baax délégué quartier ndax boo ñëwee quartier bi ñëw nañu. yal na yàlla fay may la wér ak gudd fan te lii xéewal gu mag la soxna si waaw monsieur Seye waaw waaw bu ñu xamee défi bi waaw incha allah moom ci la bokk lépp nañu jokkoo ak soxna Oulimata rek ndax ñu jaar ci bunt bi lépp lu waay mën rek ñu leen di woo waaye monsieur sëñ sëñ sëñ ski sëñ euh, Maxtaar Maxtaar fay yàlla na la yàlla sàmm mu dir wax na ko c'est moom boo ko xoolee Alassane ngay gis ñëpp dañu yaakaar ne professeur arabe la ndax la moo tax lu dul dëgg du yàgg ulimat li nga nekkee ni sañ naa la wax loolu parce que li ngay taxawee moo tax la responsabilité que tu incarnes j'ai un grand respect pour vous madame mosuma ko dara gis xëy na mais nit la koo xam ne ku yàgg dégg Ibrahima Ba mooy wax ni ma si oustaz ñu ne parent la bi ñu am oh, Ibrahima Ba professeur moo ma koy wax yàgg na par exemple kii mu am ak am yéene ci école bi ma ne ko yàlla moo koy fay sa yàlla bu la naree fay da lay liggéeyloo kii li mu def fii daara ji ku ci def yàlla teral la Maxtaar Fay noonu la ma semel moo tax ma sañ la wax loolu ma bëgg nga wax dut bàyyi yàlla na ko yàlla fay ndax duñu fàtte mukk sacrifice bi mu doon def tabax tabax daara ji xam ku la liggéeyal te gëm naa ne ñu am yéene lañu maître abatal yi nañ ci daara ji kenn ku ngeen xam ngeen def ci oustaz Ibra Alioune Badara ñu ngeen xam bonne volonté ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant kàddu yi mënta woon ñàkk rek di ñaan ma ñu fekkee at yu bëre ba lu mel nii ñu koy taxawee yàlla may leen wér mudir tamit yàlla sàmm ko ba yéene mu am ngir liggéey lislaam ak dox ci tànku maamam yàlla yombalal ko Alioune Badara yàlla yàlla barkeel xam-xam bi waaw ku la jox kaamilu alquran moom mënoo am kàddu bu gën rëy boobu tey comme ni nga ko waxee mënoo am lu gën rëy ci loolu mais dañoo am ñeewante ci yow rek di ñaan yàlla fay la ci loolu amin ngeen baal ñu ak ci guddal bi xam naa ma am ñu xaw a waa ñu am lu ñu fàtte woon di ko dabaatal rek muy waa HLM yi ñuy ay dëkkandoo ñu ngi leen di sant bu baax ci jàppale bi ak teewaay bi ndax euh, ñoom moom dañuy am ay àq ci ñoom dëkkandoo rek dafay àq ju rëy yoo xam ne euh, kon suñu amleeg ñoom ñu lu mel ni am ñu ñëw ci bokk bokk tam jàpp ci loolu tam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye mu am benn point bu ma boo xam ne moom laa waroon a jiital sax muy suñu mbokki waa Kokki yi muy sëñ Ahmad Diop sëñ Ahmad Lo ak sëñ Alioune Badara mii nga xam ne semaine bu jot ñu jël seen oto jóge euh, Kokki ba ñëw fii di fi joxe ay cours nga xam ne yenn cours yi sax dañ koy def majjaanan moom mii da koy def moom mii nga xam ne moo njëkk a joxe ci euh, vingt mille ci kii bi da koy joxe maanaam gratuitement kon loolu moom ñi ngi leen ci sant bu baax di ndax da maanaam yoon woowu saa yu ma fa jaaree rek maanaam yoon wi jëm kokki su ma fa jaaree ñoom ñi lay xalaat ndax rawat rawatina waaye léegi nag alhamdulilah defar nañ ko waaye lu ko jiitu woon pax yeeg coono ya fa nekk nga xam ne wóor na ma ne lii moom ku ko bëgg a def semaine bu jot mooy ne pas-pas rek moom nga moo moo lay anime moo tax nga di ko def mais bu dul woon loolu maanaam wax dëgg yàlla danga nga tëdd tey buñ ko defee tamit kenn du leen ne kenn du leen ci yedd waaye nag volonté bi ñu am xam ne fii kat ay ay dongaa fi nekk yu aajowoo seen xam-xam ñu jóge dëkk ak dëkk fu mel ne kokki sore na yaakaar naa jege na cent kilomètres nga jóge fa ñëw chaque semaine nga def ko ba année bi jeex te ay at a ngi ni ñu ko def wax dëgg yàlla delloo war nañ leen a delloo njukkal ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom fayal leen boppam te sàmm leen aar leen waaye di sant tamit docteur ci kàddu yi wax dëgg yàlla rafet na lool di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balu àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñu def ñaan rekk te yeewee ko naa fi ne ndaw ku ndaay moom ñu ngi xaw a ko ñi ngi bëgg a dokkoor gi. maa ngi ñaan tamit euh, mbooloo mi ñu jàng faatiha bu sell teg ci yaa salaamu fukki yoon ak benn ñaanal réew mi jàmm ñaanal ko Afrique ñaanal ko ri àdduna bi yépp loolu ñi ngi koy sàkku ci mbooloo mbooloom yépp ñu xam ne fii rek lañu am buñ sañoon jàmm rekk a fi sax nañ ñaan yàlla sunu boroom sotti fi jàmm sotti fi xewal ñépp nekk ci jàmm bisimilah. allahumma bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag